dolli euh, euh, aw fanam ci barke Sëñ Tuba ak njabootu euh, mbooleem ba màddina gépp ak Bombaale gépp na nga koy ziar bu ñu ko tuddee ci mm-hmm. ziar baax waa kër suñu xaarim suñu Aliou mm-hmm. mbooleem suñu Ahmad Mbàkke tundóo bi ñoo mm-hmm. ngi ziar baax njabootu sëñ Saliou Mbacke ambassadeur siyaar njabootu sëñ Moudou Moustapha gépp sëñ Moustapha plateau bi siyaare mm-hmm. ah, baax ñi nga xam ne tudd leen léegi mm-hmm. bu siyaar nag jëwñi sëñ Mbacke baax a baax mm-hmm. baalu àq moom rek effectif euh, bi nga xamante ne ànd naa ñoom ci Masaalikul Jinaan bu baax baax suñu Mbacke sëñ Tuubaa sëñ Moustapha lu bàyyi laa kàddu bi nga xam ne ci disponibilité ak sëriñ Moustapha Seck sëñ tey noo ko indi dañuy bañ waa parcelle foog ni. Mm-hmm. dafa way mom moy réaliser émission bi sëñ Safa Seck. mooy suñu réalisateur. ma demaatee ci kanam dina insister ne. suñu Safa mi ci télé bi mo ñu réaliser suñu émission ak sëñ Babacar Diop. Babacar Diop wa ah, moom moom tam aussi au passage ñong koy ziar bu baax di nuyu. Ah, ah. diko ñaanal baax a baax di balu wa télé bi yëpp ak nag. sëñ Safa bay Cheikh Balla Samb nak ñu ngi jël mbalu googu teg ko ci loxoom sëñ ko mboolem télévision bi. tubaarkàlla. jërëjëf sëñ Mamor kon dañuy bàyyi rek euh, sëñ Moustapha mu nuyoo ak euh, mbokk yi nga xam ne ñu ngi jàkkaarloog moom di ko seetaan ci euh, tey ni ñu fas yéenee ànd ak moom ci dundu Cheikh Mouhamadoul Moustapha dund gi nag tubaarkàlla lu yaatu la bu ñu nee dundam daanaka doy na sëkk kon dañ lay bàyyi rek nga nuyoo incha allahu rabbi sëñ Alaaji nuyoo ñu daal di tàbbi ci waxtaan wi jërëjëf sëñ Mamor. ala alihi wa sahbihi rawil baari wa tamkin mbokki jullit yi rawatina mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziyaare te jiital ci nuyoo bi Cheikh Mahamadul Muntaqa fi nekkal xaadim rasul di ñaan suñu borom guddal aw fanam wéral ay cëram di nuyu Cheikh Ahmadul Maxtaar mi nga xam ne mooy xalifa Cheikh Moustapha di xalifa Daaru Xudoos ak Guy Mbind di nuyu mboolem njabootu borom tuba gep mm-hmm. di nuyu julit ñep di len ndokkel ci bis bi di Ashura di bis bu mag bu sunu borom fonku mm-hmm. ngir lam wuntu eh, di ndokkel julit yep nak ci aduna si di ñaan sunu borom gëna degeural l'islam ganyo mm-hmm. gën ñoo aar ci noni biir ak noni biti kon lii nga xam ne ñoo ngi ciy waaj a euh, itam ñaan suñ borom barkeela lu ñu lépp luñ fi wax te fay ñu yool bi euh, wasaare ko jullit ñi te laqal ñu ko fa yàq yegut Cheikh Moussa nag wax ci moom yomb na yombut waaye euh, danañ fi fàttali nit ñi li nga xam ne bii xewoon na jamono ci circonstances yu jafe-jafe euh, mu am cag mat taxawaay ba ca war nga xam ne mënees na ne pacte la jaayantal bu mu defoon ak borom Tuubaa borom ko ne woon condition yi ma la wax su ma yéegee boo ko defee nii ma la ko waxee fa ngeen bëgg yoon wi yegg fa dina fa yegg su ngeen ko defut dinaa jël sama mbóot bàyyi leen seen yoon kon defé nan tay jiss su né ñi ngi tala magal mm-hmm. di tala gamu di tala don def lu mëna don ci l'islam fi ci biir réew mi ak bitim réew mm-hmm. eh, mel na ni amna ci ciir mm-hmm. kon nakt, eh, yalla ñu ci yalla fayal ak mboolem rakkam yi njabot borom Jadi gépp jërëjëf xam naa ñu sant bu baax sëriñ bi am solo boobu nga xam ne nuyoo na ko bàyyi sëñ tamit nuyoo mbokk yi jàkkaarloo bismillah.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 ci jataay bi teg ko ci loxo Cheikh Mouhamadul Moussa Mbacke mi su ko defee mooy yóbbaale suñu Moussa kan sëñ Mamour ñu ngi lay siyaare bu baax a baax yaa ngi ñu nga seqal liggéey bi ñëpp rek moo xam ñu ne ci machine bi la wala caméra yi lu mu ci mën a doon di siyaare bu baax a baax sëriñ si Diop mi ñu àndal moom it te mu gungi ñu ak waa kër gi ñëpp rek di siyaare tam mboolem ñu bokkal sëriñ ma dina jël seen ziar teg ko ci loxo sama buntu ca kër ga muy serigne Daam Abdourahmane Mbacké mom serigne Mbacké medina xamna kon di yamale fofu kaddu yi rek ba mu dellu siwaat insha allahu taala di ñaan yalla suñu borom ñu def ko yoon yu bare bare bare bare barke Cheikh Khadim jërëjëf euh, sëñ Alaaji ci nuyu matale bi xamna euh, dañuy daldi djublu ci li nga xamanteni moy euh, waxtan bi ndax niñ ko waxe léegi rek mamour euh tey nag xam naa euh, question yi dinaa am yoo xam ni dama lay bàyyi yow directement nga di ko poser sëriñ bi ndax euh, li mu wax léegi rek ci nuyoo ab nuyoom ci ki nga xam ni mooy Cheikh Mamadou Moustapha nga xam ni ku toll ni Sëriñ Tuubaa bi mu liggéeyee ab liggéeyam ba liggéey bi mat mu war a dem ci suñu borom kim mu fii bàyyi mu di ko wutu kooku war nañoo xam ni ku mat sëkk la ko yàlla di def waaye ci biir loolu mu réaliser fi lu am solo waye avant réalisation bobu ak yoyu amna yenen yu xew yo xamanteni ci demuk serigne bi jóge gi serigne bi jóge ndiarim ñëw Touba ak yoyu yep tay jey dañu bëgg mouriti euh concentré wu ci déglu ko bu baaxa baax xamni dañu invité ko xamanteni sunu serigne la bok ci njabootu Cheikh Mamadou mustapha waye di wax lo xamni kuko déglu dina la jariñ te lolu rek moy li am solo waye lolu dama koy dama lay bayé ak serigne bi ci question yi nga xamanteni inshallah mom lañ fas yéene émission bi démarré ci question yooyu sëñ Mamour. jërëjëf sëñ Moustapha. Mm-hmm. jërëjëf sëñ Alaaji mm-hmm. moom émission bi rek a tax mu jóge Touba ñëw tey. Mm-hmm. na koy masawu coono bu baax a baax. waaye sëñ Touba jaral na ko. Eh, ndeysaan maa ngi fàttaliku. Eh, dem nañ ànd Gabon. ànd nañ tukki ni ñu àndee woon ak sëñ Moustapha rek. Côte d'Ivoire eh, noonu lañ àndee woon ak moom dem Gabon. waaye sëñ Moustapha dañuy ñëw rapidement. sëñ bi. ku toll ni Serigne Touba li mu liggéey ak fi tubaab yi jaar moom lenn rek lañ bëggoon ci jëmmam mooy fexe ba. fànk ko bëggoon am na ci moom ba nekkatut àdduna mhm. mu dal def li mu def lépp ba ñëw njaariñ naal fa jumaa taxawu taalibe yi samp seex si ba ñëpp dëgër mu war a dem ci 19 1927 bis booba la ca am ak la ca xew xew-xew ya ak taxawaayu euh, Cheikh Moustapha ak mag ña nga fa nekkoon loolu tey bu nu ko doon indil tey fan ngay tàmbalee ba taalibe yi mën cee euh, nàmpatalu dëgg-dëgg. Hmm. Euh, li li nga xam ne mooy source bu leer génn ci ba nu mën a dugg dëgg dëgg dëgg dëgg ci li nga xam ne mooy waxtaan bi Mbàkke. jërëjëf di di nuyu waat tey ziyaar ñëpp euh, sëriñ bi euh, ñun ñëpp xam nañu ne fi mu jaar ak tubaab yi bu pexey tubaab yi sotti woon euh, du dellu si njaareem waxuma la ak dem tubaa loolu moom bind na ko bindati ko bindati ko faaw nag ñu fàttali nit ñi mbindi sëriñ bi ci boppam ngir ñu xam ne lañuy wax du lu ñuy sos duy gént sëriñ Tuubaa moo ko bind nattu bañ mujjeen teg sëriñ bi ci géej gi muy fetal ga ñëpp ñëpp xam nañ ko ko doon waññi bi muy waññi mm-hmm. tàmbalee juróom ba dara ñu waroon soqi lañ yor ci bal ñoom fukk ñoo ñeeg ñaar ci sëriñ bi ahlu badar feeñu wàcc dafa am nag foofu ñaari xissa yu ci yu ci am ñii dañu ne fetal yi dafa wëlbatiku euh, jëm ca ñooña rey leen euh, man ci suñu gëstu diggante sëriñ Moussa ak sëriñ Mahamadul Xayri Jaxate nga xam ne nee na sëriñ bee ko nett moo ko nettali bàyyam bàyyam nettali ko ko mu nettali ma ko dafa ne version bi bi mu gën a sukkandiku daal moom mooy ba dara wàcc walla ñoo ñoo ñoo wuññi kiiraay dox digg seen digganteek soldaar si ñoom ñoo ñeen ñu ne ñu taxaw rafetuñu di xoole di xoole ba ko doon wàññi suñ borom joxaat ko sago mu ram ñew ci sëriñ bi ne ko tin ñu dox suñu digënté ak li ñuy gis sëriñ bi ne ko kon da ngeen di yaxal ne da ngeen di yaxal ne manam da ngeen di ne bis ni ki tay dootu leen juk jëm ci ci man ngir bëgg jël sama bakkan ndax suñu borom nangut loolu ba ne ko nangu nanu mu yaxal ko sëriñ bi def ab kutumbal ci ni ma ko sëriñ moom moom du xëy jaxat net léegi def ab kutumbal mooy ab cercle tomb ca digg ba ne tombe bi moy l'islam cercle bi moy man mi man mi may ñag bi may ñagum l'islam lolé itam da ko bind wax ne waxabalil waxaabu fii sulaasa maa yuxjul anchata wa salasa lolou xam nañ ko waa ma maayen foon na sa fam ko su fil ardi la ko sëñ bi tënkee kon lolou lu leer la sëñ bi ko bidal boppam sëñ bi nak day liyaar mindi señ bi da koy liyaar bo bo kam ni alxuraan di liyaare mbindam Euh, manam dafa melni ni na wax fi lay firi bayit wi ne ci qasida lolou day faral di am kon non la sëñ bi bindé waaye bo day jang dong wax ne ana lu bi jublu ci lii euh, fukk ñooñu ak ñett ñoy ñan gatché gi moy lan do dem xaw nga xam histoire ba mën delu ci contexte historique ba ngir mën gindiku wa kon lolou la sëñ bi tubaab bi cib nattu boo seetloo loolu ba nit ñëwé juróom ben wër yi sëñ bi def wala luko luko lu ko lu luñ toll tuuti même bi mbaaxaan ñëwé ba dellu ñom jëmmi tubaab bi seen bopp ñoom jëmatu ñoo jogat ñëw ci sëñ bi deug la defoon nañ préparation ne dañuy guerre préparer 20000 mille balles comme nonu ko euh, archive yi ëndé te ñëpp yor nañ ko ne mom lañu ñu war a sëñ bi général Houri

bi sëñ bi day julub gis ko ne wanet waret wan ginnaaw drapeau bi mari leen seetlu ko woo Cheikh Sidi ne ko nekku na xool drapeau bi bañ pare Cheikh Sidi wax loolu sëñ bi nekku ne ko mëneesu ko mari leen ne ko nekku na ko xool sëñ bi ne ko nekku mëneesu ko mari leen gis boppam ñëw ne ko nag ne moom daana ciy loxo du du du maanaam free am amul amul liberté li war na koo def sëñ bi joxal bi ko ne ko ne bu dee xiirtal na ma xool seen sagar woow yi mën naa koo xool waaye su ma ko xoolee bis ni ki tey naa diggal sama borom déglul baat bi naa digal sama borom nguuru tugal fépp fu mu am baat dina fa wàcc ba laa yu mu diin dootu yëkkati ko su ma bàyyi sama sagum bañ koo xool nag dinaa bàyyi dogal ba bii ak sama borom ba saa su ko soobee na tànt ñaar yooyu lu ko ci neex ma def ko mu wax ko Merlin Merlin ne ko nekk na ko bàyyi bu mu ko xool kon tubaab yi xamoon nañ ay mbir ci sëñ bi waaw loolu la soog a wéy damay wax lii ngir jëm si ci dem gi ndax bëggoon nañ mu dem ay yoon te demut ba sëñ bi dem gànnaar ñëw ci yeen jolof ñëw njaareem ba mu ñëwee njaareem ca fan yu njëkk yooyee la ko sama sal ñëw def ak moom ñetti fan ca baytara sul googi ci njaareem ci kër gu mag fukki fan ak juróom la fa def ba mu génnee sëñ bindu kayit jox ko suma juumul sëñ Aliou Cissé walla sëy ne ko bis boo ma déggee tuubaa na nga ko tekki na na nanga xol nga xool kayit wi kayit boobu bind ci dinaa def tuubaa dinaa def njaarim fukki at ak juróom ngir bis bu ne ci Rasulaay ngan gi ma defal na ma ko am at ba sëñ boobee déggee sëriñ bi tuubaa la ko tekki gis mbind moom yi mm. dem gi nag mm.

loolu euh, moo ci ne te sëñ bi ci diggante boobu yi yu bari xew na fii waaye ànd nag Cheikh Moustapha dem wuy ji gouverneur commandant de cercle commandant cercle moo fa nekkoon commandant cercle di wax dugg seen protocole yi tàmbali wax sëñ mel ni wax ci da koy tàngal ndax moom boo waxee ci lu dul yàlla rek daanaka day daal di euh, gis ne euh, jamono ji mu ngi dem te moom day njëkkante ak jamono jóg bëgg a dem si Cheikh Moustapha jàpp la fa mu bi gësam ko sëñ Tuubaa toog kon kooku jox na ko cër nettali bii bu ngeen duggee ci YouTube bi Cheikh Moustapha moom sëñ Saliou nettali na ko jamono yi sëñ Xaadim moom Cheikh Moustapha waaw kon joxoon na ko cër te sëñ Modou Moustapha kuy gën a ragal sëñ Tuubaa rek moo la ko gën a ragal ku koy weeg rek moo la ko gën a weeg moom mi dem ba ne li ma gisagul te mu wax ma ko laa gën a gëm ci li ma gis waaw kon noonu jëmmi dem gi moom sëñ bi waajal na ko xam na ko xam na ni tubaab yi lii lañ bëgg bi nga xamee ne wax na ak sëriñ bi benn ci xisayit soxna may nettali ma ko man te nit ñi am ci ak réer ci dégg ak dégg dafa jabe soxna may def ma ne euh, Cheikh daal moom li mu def moom matal na lépp ndax ne newoon na euh, indil raay bi defal jumaa ji te bu ko ab tubaab tiim mm-hmm. bu ko ab tubaab tiim joojee la nit ñi runge tiim nga mooy jan jëmmi tiim lay wax ndax woo ko mën naa de rek mu ñëw constaté ne jëmmi aadama yu gi nekkatu fi mm-hmm. wala beneen tiim la sëñ bi wax mm-hmm. beneen tiim boobee la sëñ bi wax ndax xam nañ ne euh, Paal ñëwoon na fa commandant Cheikh ñëw gis jëmmi sëriñ bi loolu lépp am na ci waaye tubaab yi lam doon nar ngir téye ko fa fukki fukki at ak juróom mooy bu demee bu jëmm ji yéegee ñu jël ko yóbbu tugal def ay test scientifique ci moom mooy tiim bi sëñ ab néew boo ko tiimee da nga def ay ci moom tiim sëñ bi wax nit ñi dañuy ruungee wax bi tiim googee la sëñ bi wax te tiim googee waaw sëñ bi junñu na ko ci ci bayit akramani bila xuruji badani min watani bi fi ahli madani lol sëñ bi wax nako teral nga ma ci sama jëm ji nga xamne du genn di jariñ ñeneen ñoñ ñoñ ñoñ wa tax kon kon lolou eh, akramani bila khuruj badani kon nga xamni danaka daanaka téye ko tey njaareem yep ngir mu dem jël jëm ji yobul won waye do ngir andi ko njaareem du ngir ngir nan commerce bi dafa ki déedéet mm-hmm. tu eh, nañ def pharaon ñukoy setan di ko seetaan nit ñi ñëw di visiter loolu lañ bëggoon def sëriñ bi te la nga xamee ne bii moo leen gën a jaaxal dëgg dëgg dëgg mooy mboolem luy tentative d'assassinat bu amoon sëñ bi génn ci moom jaaxal na leen ndax lañ ku njëkk a def ba mu yeggee mooy jël jëmm ji suul jël jëmmam suul lañ def bi mu ne cëpp gabam 1895 lañ li ko def mooy jël jëmm ji suul gas ko suul lañ def te sëñ bind ko ردم ربيما عدوية حفر لدراري وسانني يعني نفر كون أه، سن بروم سولين نما تي باخ مومي خا خمن نوني دافون نانكو غير لورما كون لورو لير لا كون تيم غ سونا ماي دي واخ تي سيرن بي واخ مكو موي تيمو جيل جيم جي يوبو توغل داف اي تيست ساينتيفيك تي موم تيم غو غيل سيرن بي واخ موتاخ نيت ني دي رونغي نان توبا بي غيس نكو سيرن بي واخون نادي دي دي دي jël jëmm ji yóbbu suñuy nopp jël jëlal mu sàmbaake di xaar fii xool yax yi fii def nii nangam nangam nangam loolu la sëñ bi wax googu googu tiim la sëñ bi wax moo tax te tiim googu yi ñaanoon na ko mooy bayt bi ma la wax ne akramani bila xuruji badani min watani bi na fi ahli muduni loolu lu leer la kon sëñ bi xamoon na ne ñoom bëgg nañ koo jël yóbbu tugal waaw kon bi nga xamee loolu am na mu yéeg ci li ñuy jàpp ci takk ci fukk fan ak juróom-ñeent ci muharram dugg këram te ñaar fukkeelu fan muy màggal gi lu tax ñu jàpp ne fukki fan ak juróom-ñeent la mooy sëñ bi daa daa daa toppanteeg fukk ak juróom-ñeent yooyu ba ci Cheikh Moussa rek euh, naal bi mu naal ji jumaa ji ni mu ko rëddee nii da nga ciy gis fukk maanaam uroo fi la ni mu ni mu ànd ak bi mën naa ci dugg bu gaaw a gaaw xam nga seetloo sëñ bëggoon naa génn dem ci géej gi ci ñeenti fan ya loolu la loolu sax la bind ci sa chakurul atur fi jaab Abdou Latif loolu la bind bu bind ciw bayit ne <coughs> génn na ci ñeenti fan ci weeru safar moom mooy intention ba moo buggoon a génn sama salam ñëw ne ko des na ba ca mu tegaat ci ñaari ay bis fan ak juróom-ñett mu soog a génn ca ajjuma ji ca guddi sama salam ñëw nekkoo ko demal te bu ragal dara mu bind nag xasbunallaa wa ni'mal wakil xasbunallaa wa ni'mal wakil boobu yi boo seetloo uróof yi xamitu man yax si mu mën a darar ji fukki uróof ak juróom-ñeent fukki bayit ak juróom-ñeent la muy bas ma la mu dajeeg tubaab bi jeewal fukki fan ak juróom-ñett ci takkusaan loolu la bind buñ jëlee takkusaan ba noppi ñooñu bëgg ko bëgg ànd ak moom ne ko faaw nga dem Leclerc menacé tiire ci kaw. ahlu badar euh, yëngatu. mais génn wuñ jëm yi contrairement natt bu mujj bi nga xam ne dañoo génn seen i jëm. am na lu xew ba Leclerc dellu. loolu la Leclerc bind ci rapport ne ca le le jour suivant. dañoo dellu jeewal kon lu tax jour bu njëkk muy le 18 safar. jëlul kii nga xam ne dafa waroon doon prisonnier yóbbu ko waaye sëñ bi gàntal na dem ci fukkaan ak juróom-ñett fukkeel ba ak juróom-ñeent lay dem muy 19 bi moo ñëwaat te bi maam Thierno njëkkee ñëw Leclerc jox ko ultimatum maam Thierno di wax daf ko ne Thierno dara matumaa wax ndax ba ngay waxanteeg ndaw loolee xarandoo mi dox ci sa waq wi nga koy fas maa ngi jàkkaarloo loolu ñoom lu tax sëriñ bi di jël xarandoom témoin te jël Birane Diaw wala keneen interprète wala keneen xorondoom dafa am signification parce que surtout nam la dafa am nam la ca la beneen bisimilah maanaam nga xam ne gii nekkul ca taw ba ñëw ci nam la innahu min suleymaan wa innahu bismillahi rahmaani rahim kon sëñ bi dafa am rapport ak la moo tax ñu defe ne 19 muharram ci la yéeg ci la ci la mbóot mi yéeg ñu denc ko ñaar fukkeel muharram te boo toppee mënoon naa ci gën a xool lu bare bare bari waaye jëmmi dem gi nga xam ne Cheikh Moussa. weeru tubaab bi sax 19 la de. 19 juillet 1921. Euh, moo tax ñu ñu jortu ne ñu jortu ne 19 euh, muharram ci la feeñ. bis bu mu feeñee ci la yéege loolu lañ jàpp. su fekkee da ngay wër at yi mën ngaa indi ay at yu yu yu yu bari yu bokkut waaye. bi benn ci bi gën a siiw ci mooy béytu bi nekk ci euh, jaawartu nga xam dafa wax ni dëkk na maag sama borom lastu ashuku abadan fii kaw ni jaaral badien ajaban li kaw ni ajaban joojee boo ko arrêté soixante seize la lay jox bu dee yokk nga ci alif ga bu dee yokk ci alif ga soixante quinze la lay jox kon foofu mooy mbir mi ndax am na ñu bàyyi alif ki mais bu dee sensibiliser dafay indiwaat daf lay indiwaat ci maanaam sëñ bi lim lim lëkkaloog bisimilah rahmaani waaw kon euh, muy lu yéeme yéeme yéeme nga xam ne sëñ Tuba ay mbiram dafa doon dafa nëbbu ci alxuraan maanaam. maanaam da ngay jeex ci alxuraan soo soo gis sëriñ bi. bu la yàlla dimbalee boo koy gës rek di ko gis. ndax relation yooyu mu am yëpp. ak ak euh, suñu borom rasul sallallahu alayhi wasallam lépp ci alxuraan ak ci xasaay bi waaw alxuraan du moo ne loolu daf may indi ci bi Cheikh Moustapha di natt jumaay Touba sànq laay vérifier ak Amadou Ndiaye Ngiraan euh, dimension yi dimension yi jumaa yi dafa am ñu wax ne quatre vingt seize mètres virgule vingt neuf mooy longueur bi ak soixante six soixante six moom tegu na. soixante six mooy allahu loolu moom tegu na. quatre vingt seize mooy suratul alaq bu dee yokk ci virgule vingt neuf ci mooy suratul alaq suratul alaq moo lay indi ci fi suñu borom di waxee. allama bil xalam maanaam jàngal nit ci ci bind. kon kan lay waxal rasulullah sallallahu alayhi wa mënta bind te suñu borom mu ne karaamati xattu yet yi kon ban bindkat la suñu borom di waxal foofu 96 hmm? boobu bii daf daf lay indiwaat ba tey ci surtout ci ci maanaam bismillah maanaam yi nga xam ne bii moo nekk ci alxuraan am rapport ak Serigne Touba ndax fukki baat juróom-ñeent yi njëkk wàcc ci àlaq jooj yi foofu la yem alamal insaan maalam yaalam fa la yem boo ko wàññee fukki baat juróom-ñeent la Cheikh Moussa Tambli jumaa ji jël quatre-vingt-seize muy quatre-vingt-seizième suuraat chapitre ci alxuraan hmm? ndax yéen a dégg li may wax bu baax dafa xaw a dafa xaw a compliqué waaye simple na maanaam hasard dafa amut ci mbiru suñu borom hasard daa amut lu lu am lu ne rek suñu borom fekk na mu calculer ko ba teg ko xanaa yow yaa xam waaye bu dee catholique da ngay dellu ci loolu daf lay indil sëñ bi lii dama koo bind ba nopp moo tax ma ci ma ci dellu si nii ngir 66 yi leer na. même boo boo ci yokkee virgule 29 bi. dafa am lu mu lay jox. 87 virgule 29 dafa am lu mu lay jox. waaw léegi nag lam lay jox mooy boo additionné 9 plus 6 plus 2 plus 9 daf lay jox maanaam euh, suratul hadid. moom la loolu di indil te xadit mooy mooy fer te sëñ Tuubaa bu mu jógee jeewal dem kokki la mu njëkk laaj mooy alluway weñ mooy fer waaw lii faw ñu gëstu sëriñ bi loolu sëñ Mountakha di wax naan da war a jàngi xam-xam ba ne ar soogu ñëw gëstu sëñ bi waaw mbir ni sëñ bi ni mu jaxasoo ak alxuraan faw ñu kem lu tax lu tax ay lañ ci xam nag xamuñ ci lu bari waaye li ci xam dafa doon loo xam ne lii day gindi nit kuy wër dëgg kii wër dëgg moom mënoo ko wax lu mu gëm waaw hmm? ah, kon Cheikh Moustapha bu nattee natt boobu yi jël chiffre yooyu yi ba pare jël moom moo ne nañ ko def fii jumaa ji natt ne nañ ko def fii jël yëf yi teg ko ci barab boo xam ne dañoo gis ne aw xeer la moo tax jumaay Tuubaa du am fissure xam nga loolu dafa dafa dafa doon loo xam ne lii boo ko seetloo te te te te xool doo xam lan la lay niru lu dul dafa baatine loolu bana tuba mënu fa taw tax boo xam ne bii da nga am fukki at te am fissure lu toll jumaay Touba ak ni mu toll ak yëf yi ni mu yéemee fi mu tegoo nga xam ne loolu yi lépp dafay ñëw ci fi ko sun borom indi ci alxuraan ndax sëñ sëñ tuba moom digënde fii ak fi ñuy attee bis penc lu mu waxoon loolu la waxoon hmm. Hmm. te ñu ne xaaf wal quranil majid xaaf aw doj la loolu la ñu wax hmm. te daj gëm nañ ne mooy foofu yi suñu borom digal sëriñ bi mu def fi jumaa ji Cheikh Moussa foofu kon dafa doon lu lu lu doon loo xam ne buñ ko seetloo dina dinañu gën a jox pasteef ci sëriñ bi gën ñu jox dogu ci sëriñ bi sëñ Moussa nga xam ne ci bis bi te jaasoora gi ci la feeñ ba muy feeñ fekk na sëriñ bi nekk ci xalwatu di bin matlabul fawzayni toll ciw bayit muhammadun afdalu xalqullaay bi laa tardidun wala shibaay foofu la sëñ bi tolloon ñu roof aw kayit mu gis mu waññi gis ko ñu gis ne soxna Amituloo am na gan sëñ Abdu Rahmaan loolu sax dafa daan wax jant fenk na sëñ bind ci ginnaaw daan ne haza muhammadul mustafa waaw kon euh, dafa maaseek Fawzeyni maaseek Touba maaseek feeñ feeñik Touba ak Cheikh Mamadou Fall ndax ay ay wéer yu néew lañ lañ lañ rawante kon loolu su amee mu kii ci bis bi ab junj la ci kuy seetlu ku ne ndax asar mu amut jekki-jekki mbir tombe rek amut aw nag boo ko ratee meew génn ci waaye boo ko jamee da deret ciy génn te lépp mi ngi jóge ci nag bi waaw kon sëñ Moussa nga xamee ne yóbbu na sëriñ bi ba tubaab yi am ci lu leen naqari ba woowaat ko ndar woowaat nañ ko ndar mu ànd ak sëñ ma surang surang ak góor gi sant Tandine ca Loodo Merlin mi defoon rapport bi ba génn sëriñ bi moo moo moom la yàlla nattoowaat mu nekk gouverneur comme bi sëñ bi di dem gànnaar moo nekkoon gouverneur mu woo Cheikh Moustapha ne ko euh, da ngeen ne sëñ bi génn na moom ci boppam sax gëmut na yëf yi am na da ngeen sëñ bi génn na denc ngeen ko nañu bëggoon léegi c'est noonu la demee euh, ñu génne ko yóbbu ko tugal la moo tax sëñ bi bind bayit bi def ay test ci moom ngir xam nañ ne nit ne ndax am na am na fuñ jaar moom nit du nit ku normal am na fu ñu jaar ak moom. waaw <laughs> ah, Cheikh Moussa ne ko waaw da ngeen may rey rey samay rak rey Cheikh Sëñ Tuwaay ba leen yàlla maye loolu leen soob ngeen def dafa jóg claqué porte bi bàyyi fa ma sorong sorong ak góor gi tàndine ñëwaat suddu nes kii si ma fekk si ko fekk sëñ bi dindi kaala gi teg ko ma sorong ne teg sëñ bi ne teg ñoom ñëpp ñu ne teg moom yàgg Euh, masoon ne ko sëñ bi de suñ jataay bi ñu amoon léegi ak tubaab bi am naa ci xalaat mu ne ko bisimilah mu ne ko damaa xam tubaab ak ni ñuy xalaate ak ni ñuy waajale lii mu ñu junj nii lu ñuy waaja def la dañu ko dañu ko gaaral ba xam kon nag nañ jël suñu matuwaay masurang ne ko Cheikh Moussa ne ko masurang na sa xel dal liggéey suñu tubaab wees na lool gis nga gis nga avant sëñ bi teg pose première pierre jumaay Tuubaa ji li ma la wax li li ñuy wax top secret la commando jóge nañ France pour jàpp mu Moustapha avion militaire boobee dafa daanu ci ci Atlantique bi ba tey ji France waxu ko France li mu waxut bari na moo tax lu ngeen gisut tey leen bu leen ne amut neel gisaguñu ko waaye mbir amut ndax am na léeg ma dégg ñu naan septembre sëñ dong lañ foo ah kay sëñ dong lañ foo waaye la jiitu loola wala ñeneen France fu bàyyi ay bari ay document yu mu téye ba tey jii may wax ak yéen diggante 1895 ak 1902 amuñ ci benn page d'archive man demoon naa Libreville doon def recherche benn phrase laa fa gis benn phrase comme convenu

ci France nit koo xam ne kii Cheikh Fall yorul paaka yorul jaas dara nit la jenn jëmmi nit di nit ku ñuul ñu gis la daan xew ci yonent te ñu ci téere di xew ci jëmm ji xamuñu lu mu doon xamuñu fan mais la xew la xew Gabon ñu ci dara te la sëñ bi am na lu mu ci junj sëñ moom day junj rek moom moom am na lu mu ci junj kon bu Cheikh Moussa waxee loolu France def lii naroon jàpp Cheikh Moussa ngir defe ne d'abord ñoom France dañoo defoon ne yoon wi day tas bu sëñ bi génnee yoon wi day tas moom kenn ku ne dem fen am na sax lu ñuy juñ ci seen rapport yi ne euh, cheikh bu nekk da ngaa gis sa bopp mënewuñ ñoom seen biir kon yoon wi day tas loolu bind nañ ko kon sëñ Moussa li yéeme ci mbiram mooy dongo yi nga xam ne dongo yi sëñ Tuubaa lañ muy ku mu seexal muy ku mu bokkal maam waral sali muy ku mu ku mu meññ mu ñëpp ay dongo lañ daan dégg sëriñ Tuubaa naan yàlla nee na Jibril alayhi salaatu wa salaam ñëw na fi léegi la fi dem léegi la génn gisatuñ kooko ñu ne yow mi yaa fi toog léegi te ñenn ñi mat lay bàyyi ci at hmm? Euh, loola nga fexe ba dajale leen maanaam euh, session comme ni amoon ci jamono yu saa saa salaam. wala ginnaawam ginnaawam maanaam ci séance nag séance seen. loola mënoon am fii. ndax daa doon lu yonent bi. zaahiran wa na hmm? loolu amu ci muy benn. njaboot gu sey nga xam ne sëñ sëñ Tuubaa da koo dénkoon. di ko tàmbalee ci ci ci euh, sëñ Abdul Ahad wàcc ba ci suuf. xam ngeen sëñ Cheikh Mbacke na Fatma. Mm-hmm. Mbacke woon na sëñ at. Mm-hmm. li tax ma ma ñaari at mooy soxna Xadi moo ma ne. Mm-hmm. sëñ daal li mu jàmbaare woon. dafay jékki rek ne dërër fii. ñëw gaare otoom daal di ñëw wàcc daan daal di daal di fe teraanga ju bëree bëree bëri. ne soxna Xadi su ma des gor lu ma ndax sëñ Cheikh na ma ñaari at te ma la sëñ Maodo Moussa njëkk a sancal soog koo sancal. man la njëkk boole boole booleeki dongo soog ko booleeki dongo lii sëñ Abdoulaye moo ko daan soxna Xadi Fatma man mi la ko nettali waaw kon nga téye ñooñee nga xam ne Cheikh Cheikh mi gën a doon tut tànk ci saayir alxuraan mi ngi ko wàccee ci tukki yi sëñ Manoune Saay da ko daan déglu en même temps waaw waaw. day ànd sëñ sëñ sëñ Mourtala ko nettali maa ngi toog New York moom kenn nettali maa ngi toog kenn Cheikh Bal Sam euh, amaana mu fekkee lenn jataay yooyu waaye moo ko nettali Mbaye Guèye mi ngi toog euh, Mbaye Guèye ak sëñ Pall Diop. waaw kon boole njaboot gu sego gi téye leen ba pare gere cheikh si cheikh si ku ci ab taaw ku ci ku ci wàññiku mu sam fab taaw ne topp leen ko hmm? ngir ñu mën am chantier bu bii nga xam bii dañ ko doon gàllankoor tubaab yi ne dégg ma faaw ñu def chemin de fer bi Cheikh Moussa natee jumaa ji donc 96 sur 66 yooyu dañ doon wax ñenn nag ci nga xam ne xëy na xamuñu sëñ bi dañoo wax ne lii seng ko dong mëneesu ko waxuma la ak tabax nga bëgg a def fondation deux mètres te moom la def deux mètres fondation ci suuf ci def fondation bi bëgg koo tabax ñu ne jëm ji day gént la daal rasul sallallahu alayhi wasallam naan ko naan xel mi laa dem dal borom Tuubaa ca xaalul yerkam ñu naan xel mi daa dem xëy na lool loolu la ñenn doon wax ci Moussa xëy na xelam daa dem ndax baa ndax ndax ba ndax ba mi mi génn waaye lii moom mu ne su ko sax seng wax ma la ak tabax mu bàyyi fa loola ñëw engage beneen chantier cinquante kilomètres presque chemin de fer guleet ci histoire humanité mësta am am nit ku nit ne ab privé ne damay def raay ngir tabax yi néegub yàlla loolu mësta am ci àdduna xam ne raay bu jumaa jee nit ku jóg ngir tabax ab communauté bu jóg mhm. ngir tabax raay dong mhm. wara def juma ci aduna si ñu xam mësta am guleen ci lo xamne li ne ngi koy vérifier ak seigne Mbàkke Lo démb matuñu woon trois cent personnes nga sogo indi euh, la ca war ci ci nit ñu leen ñu leen di fay 1500 personnes chaque jour nga def ñaari nak 350 cent grammes de nga mam euh, bopp ceeb ak café ki voilà manam nga xamne ci 28 mois lañ ko def lolu loola li ñuy wax leadership. moo koy moo koy moo koy moo koy leadership bu baax moo koy moo koy incarné moo ko mën a incarné loola dem. waaye suñ borom far ko ci euh, li ñuy wax pluviométrie nga xam ne bu daan taw dix millimètres day taw vingt millimètres. am nañ chiffres yi ñoom def nañ chiffres yëpp. muy lu yéeme yéeme yéeme sañ nga xam ne dañ ko war a jàngale ci école yi. li ñuy wax model économique. <laughs> Euh, loolu ab tàmbali ndax booy defarum réew. infrastructure maam xëy na euh, bokk na ci li nga war a njëkk defar ngir jële marché barab sàngam dara indi ko barab sàngam wala da ngay bay ceeb jële ko ci biir gox bi indi ko Dakaaru wala tomate wala leneen <coughs> xam naa euh, yaa ngi fa am solo dogañu la sax waaye euh, bi ngay nekkee ci biir waxtaan bi ci la suñu directeur aksi moom seen Jibril Ndaw xam nga daanaka maa dañoo bokk fi bokk <laughs> ñoom moom waa Daaru Xuddus la moo tax léeg-léeg euh, maag maam Mor dañuy dañuy nekk di kii. Moussa Ba tey moom directeur xam nga lu ma waroon def. waaw dem di xelli kafe takk takk deru waa Daaru Xuddus yooyu ñëw di ko séddale loolu la directeur waroon def tey. waaw waaye waaye waaye du ñëw fii toog. Mm-hmm. mais directeur moom tey moom. loolu la waroon def bu bu teeloon na ñëw. Mm-hmm. seggukaay bi laa koy tegal nële. Mhm. ne ko sa sëriñ Ngo. waaw dëgg mu ñëw boof fii toog ci suuf. takk deru suñu deru daaru boobu. mu mënta ñàkk wala mu wala mu soltani wilaya bi. wilaya bi <laughs> noo koy nuyu di ko baalaax. Mhm. léegi la ak si moom it moo mhm. coordonné lii vraiment. jërëjëf sëñ Mamor xam naa dañ koy bàyyi mu nuyoo balaa sëñ Alaaji bi non non sëñ ji sëñ sëñ Saba. waaw euh, bolokeel ma bolokeel ma ko. ah sëñ sëñ sëñ dimbali ma rek nga bolokeel. kon aca kon aca léegi léegi léegi ki nu doon ki nu sëñ bi junj léegi. mooy Cheikh Modou Moustapha. sëñ Lamine lan la ko wax. bisimilah. allahu rabbul alamin. ci. laay tàmbale man Modou Lamine. julli ci xayril alamin. tey tagg ngeen ji limaan. ausu billahi al asim. من سر الشيطان الرجيم من مظلم ما جيم جيم لما يتقيم دي الخديم أعوذ بالله العظيم من سر الشيطان الرجيم من مظلم ما جيم جيم لما يتقيم دي الخديم يمنا خديم المستوى يومي نتو دي مستوى يا جيف lu jommal mhm. da ni nga bari soga a dem mhm. sa turi wen raw ko sa wajurit ken gënu ko sa askanit ken sikku ko mhm. sa jikko nak ken du ko am li tax amo yow dendandoo jagle nga am ciw ngir ko fi bokal turando aminatu eh, du don ndayam babu amido ne ndayam seexul xaddim du waajuram tey ku am ngor gi nga am waaw waaw gi jagle yow rek a ko am aminata jur mustawa amintaloo jur mi tafaa kon mee tafaa may mi tafaa mhm. li tax mu sangaay kemam aminata jur mustawa mhm. amintaloo kon mee tafaa may mi tafaa li tax mu sangaay kemam Mhm. Madina géeg Taayif gëlee Tuubaa gileeg Taayif gilee meetar yi ñoo ko tollale kum neex nga dem natti ba xam taar ba newoon ca Moustapha mhm. moo nekk it ci mii tafa wir ga newoon ca Moustapha gis nan ko it ci mii itam Seex mhm. Moustapha ma sulawar telum la wax loolee la nar moom lum la dikk fay ko bor kenn mësu ko gis mu bangam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 kii ñàkk añ mel ni ko waar boo watuwul itam du reer lu mën na jël yóbbu këram hmm. fa bu jiwu def ko ci suuf kii xiif ba faatu dem ci suuf bu ma robee def ma ci suuf lan laay wax sama borom yaakaar a tax mu xëy si ma te suñ borom it jox na ma ngir jiw wi delew na ma jullit du suur ba dëkkandoom mindee fi laay lii ma am ngir ji ci suuf du maya ndam yàlla mindee fiyee gàncaxam loo ji mu seqil la fukkam la mu ji woon nag sax na tey ku dem ba tindoo di tey xam ni liggéeyal yàlla day Seex Mustafa rek a la mu nag sax na tey ku dem ba xam ni liggéeyal yàlla day Seex Mustafa rek a ko xam la mu ji nag sax na tey ku dem ba teew fee tayif tey xam ne liggéeyal yàlla de Cheikh Moustapha rek a ko xam nag sax na tey ku dem ba teew fee bayti tey xam ne yàlla de Cheikh Moustapha rek a ngir tey ku ne ngi yor boole ca mang waa këram naa tey jile faw dem ngir am sàkku mbégam lii lépp nag xam nga li tax daa yéene nit ku ne lu baax du jëf lu ñaaw du wax lu neex du yàq kenn ab deram daraa jëfandikoom xelam lu néew la muy laal baatinam ngir neena nit ku nem xelam la war di natt ay mbiram ku yor loxoy neenam di xaax nga duur ko ngànnaay dootu xaax baatin dafay defar du xaax koye ci saayir mu gërëm amoon na kàngam yu kow yu dëddu woon wan ko ginnaaw te mësu caa wax nit lu ñaaw nite gi daa jiitub juddoom baayam ya ñépp a ko gërëm mbokkam ya ñépp a ko gërëm daa mujj ñépp ñëw këram tuubal ko toog fa ne gurum ku ne di sàkku am mbégam jàmbur ñi ak ñii di mbokkam am di du mer te du bangam defar na léppam soog a dem li tax nga xam ne moo fi gën daama sa woote genn ngan mbokk ak dëkkandoog ñii di gan ku ne na ñëw ma wut ndégam ba ñu fayandoo nag ba ngoon ba ñépp julli takkusaan nan daje waxtaan doora ñaan tey maa ngi nii ci seen kanam lu waay bëgg na daa di wax danaa ko def bu dee lu baax lu waay xalaat rek na ko wax bu kenn ñéeb lu ay mbiram lu waay bëgg na daa di wax danaa ko def bu dee lu baax lu waa xalaat rek na ko wax bu kenn ñeeblu ay mbiram mag ak gone tey ñoo fi yam sëriñ akub taalibe tam kenn ku ne na wax bëggam danaa ko sekkilug dégam ba ñu waxee ba noppi nag bam saafara ragg ya nag la wax ne naa dénkaane nag saa bopp samay moroom ñaari bayit la digle woon lam digle woon ca la ne woon loo gis jagul tuddel keneen du jëfi ëm di duy waxam ab sang akub sengayam di fiiti woon naaj fab keram jox ko ñu nekk cagronam ku ne mu jox ko lay xam taalibe day fab yëfam jox sëriñam ba koog yëfam lum ko digal mu ne na am gënal ko fopp bakkanam ku melagul nii sanga goo am néegu ñax nga sénga goo gone gu ndaw nga màgg goo sang dafay seggi mbiram ku melagul nii duggagul taalibe këpp daaw gangal sëriñ du doon ku ñuy digal loo jëf ñu fay laak payam Seex Mustafaa jëfi sangam landi na kenn xamul sikkam xaaral maraay sama sikkim sangam landi na kenn xamul sikkam xaaral sama sikkim wax leen ci tuut du ne xalim daa ma sa tukki biir kajaar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 weeru ko nit ñi di ko xam au contraire da koo siggal sagalu ko da koo sagal mu daa di rus yóor nam sagal tol na inna jattung ndongam da leen ni ko na ko naa ko bëgge woon lu ngeen ko ba ngoon danaa ci jot leen tuddaam nee na ko borom teral mbindéef yi dee leen suturaal ngir ñi ngi moy mu leen di baal nëbb na say ayib itam su ma waxoon nit ñi li am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 mu dem ca koo kayit na ko Cheikh Moustapha mi wattu ko ngir nee na moom soppule ko te lii ma wax mi ngi ci kanam ba seen diggante xawa a nëx waajooja ñëw fa ak marax sëriñ bi noppi bañ a wax waajooja nit ñi daal di dem ba am lu mat ay weeri weer waaja dikkul di ko siyaar am mag mu baax dal di fa jaar ne waaja lii luy sababam mu ne ko man kat jaaxle naa ba tax na sax man ñaanlu naa sama diggante yàqu naa ak taaw bàmbal yi du ndam Cheikh Moustapha ma sa joxeef te xëw ma man lu ma ko def bu ma gisee du reedu kaf léeg-léeg mu jub ko sax mu dem mag moom a xëy Cheikh Moustapha dal ñu ko diw moom gën ne fee sëñ bi ne ko dun daje fii dun daje fee yemal xiyaam fekkee ne yéenim dëgg la te nee nim def noonu la ku bañ yoneen kuñ dàkku la lii tax mu teggi ma de dem mag ma ne yéexee sëñ bi diw yow rek la bëgg yow la naw te boo ko bàyyee dana bew te dana baw yow rek la am te lii ma wax nag bu amul bis penc ci baa nan ma mbugal man du ma jóg di la sasal loo xam ne doo ca làqe ndam sëñ bi ne ko laggal wooyi ko na ñëw nga yendu fekke ko dana ko baal jéggulu ko danaa ko jox it ba mu gërëm walla ñu ànd gane ko fekkee teraanga yoru ko fa ballu doy yutaale ko na jàpp bés bu ci moom te xam ne am mbokk la mu jege sëñ bi nawle la bu ñépp xam kilifa la rambaaj bi moo yàqi mbiram rambaaj bu dikkee yewi ko jox ko mu dem te bàyyi ko ngir lu mu xam dem waxi ko lu dul ba ko du saafaraam am na ku doon rambaaj fi moom dal ni ko diw am na ku doon rambaaj fi moom ne ko da génn ci moom yàqal la rekk la bëgg moom te tekkiwul daa ñàkk jom mu ne ku jëw ñu bàyyi la kon yaa ngi jëw ma bàyyi la am yow noo def noonu la bàyyi ko bàyyi ab deram am na keneen ku ñëw ba tey ne ko damay xuloo si tey mu ne ko neel daay xul si kay am di xuloo du ay mbiram bu ma xuloog yow tey nga rus da koo dajeel dana la pes nit ñëpp maase di la xaas lee tax xulal rekk te dem koo xam ne loo def junni def loo digle fukki junni jëf war ngaa xalaat jëkk nga jëf buur bee la ñàkk ci kàttanam nit sax bu lay dénk këram saa xëyee dur waa këram léegi mu nangu ay mbiram kon naka mbiri suñ boroom béjjën bu dëkkee sax ci daan dana dajeeg bés lu ko daan bam daanu sang du añaan noggatu baaxul te du ndam martu bi dëkkee dóore sax léegi mu daar wala mu maax sang du def lu jóg mu xeex ku nekk teetee comme xelam xam nga li tax mu ami ndam moom dafa daa diisoog ñoñam mësula xeeb mu xelam góor ak jigéen mag ak ndawam xam nga li tax mu ami ndam moom dafa daa diisoog ñoñam mësula xeeb kennum xelam góor ak jigéen mag ak ndawam nee na ku dul buur dana juum su ngeen gisee am di mu juum mbooloo mu bari dana juum man am di daay la jaayi xam moom ni mu daa diisoog ñoñam ku ne da koy def ni jëmmam danaa la wax nga gën a yéem kenn du mustawal karim day woolu man nag fukki mag yooyu bokkuñu ñu jóge nag ku nekk jàng yow nag te doon ko am diine te gëm fukki tund yu bokkewul seeni xalaat doyadiwul te seeni yéeneet lëndëmul dara gënuñ kan itam bu biir masaa des ñaari weer day sappi kenn woo ko reer bu mag ma nag ba suur mu daal di ub buntu këram ne ko damay laaj nag xalaat nangam dalan nga ci xalaat looy wax ne doon looy mën a waat danga ko waxaat yemal xiyaam du sama yëf yàlla la mbaa sëñ bi mbaa yeneen bi la te mustawa jiwriñ ji la bul ma curus ku ne xelam mu wax ko nag la mu xalaat te nii mu def da koy defaat ba mat fukk caay xalaat mu tànn nag yëg ko ca yéem lee tax bu juumee ñëpp juum fu mu xuri ko ñaami saa bu waxee nit ñëpp loom ngir mos la doy am xelam wax naa la lenn ci tabam wax naa la lenn ikamam wax naa la lenn ci mayam xam-xam bi nag laa bëgg a jëm naa tàmbalee ci alxuraan araf yi yëpp nag la naan guddeem gën a ca lay fanaan lim bind kenn du ko lim dongaam yi bu ñu saa xëy mu jël xalimaam nga téye di bind rekk taa bàyyi nawet bu nekk ab kaamilam saa bu bayee bay jébbale boole ca kaamil jébbale nee na ku bëgg a jàppale bàyyam dalee di ak bëggam bind na kaamil yu ne xos te doo ci yër benn barus ngir du ca ba genn xomos soq na ba teesal dogam ma wax la tuuti ci muñam te wax la tuuti ci mujjam te wax la tuuti ci ufitam ni mu def ba man fee wootu daam lim dékku kenn dékkuwu ko li mu dégg kenn déggu ko lim su bu lépp fóot na ko waaye yóbba muñ naa mu ñam ab fondement dafay dëgër lee tax ba am di sàmm ngor lépp lu ñëw rekk mu dér ba def la sëñ Tuubaa gërëm yàllaa ko def muy fondement te mat na sëkk fondement hmm. tabax bu dëree fondement baa tax mu àttani kenoom yàllaa ko jiital jiitu na moo jëkk séddu cëru na ba mbalaqoo wuutu na defal ko lépp mébétam wuutu sëriñ bi doy na ndam indi ko Touba doy na ndam sa sun jumaa ji doy na ndam niroog yonen bee ëpp ndam wuutu sëriñ bi doy na ndam yóbbu ko Touba doy na ndam sa sun jumaa ji doy na ndam niroog yonen bee ëpp ndam Cheikh Moustapha nii la doxe du wax lu ñaaw du ko jëfe lu mas a am da koo joxe deuxième la woon ci turandoom sëñ bee ci feeñal coobareem ni mel ci Moustapha al moo tax mu xër ci ji la doom def ci lu kenn mënul ci doom ab lii xaddiimal Moustapha way nii Cheikh Moustapha ak yiw du jeex fii du fee def ko itam ci yeneenam salli salaatan tustafa ala nabii Moustapha waali sawil wafa wal mursalina kullihim hakaza balaa sëñ Jibril jëlee micro bi balaa ñoo jox suñu directeur mu nuyoo way wi kan moo ko way taalif bi Serigne Mahamoud Lamine Diop Moussa Abdou Khadir Samba Aminata waaw kay. mu sëñ Abdou Khadre moo way lii moo ko way ci sëñ Modou xam naa ni xam naa ni moom sëñ Lamine moom mhm. ñun gisuñu ay sëñ Saka ak sëñ Mor waaye ji jamono moom mag na li mu wax ci sëñ Abdou Khadre dégg naa waaw tubaarkalla nii rek la waaw mhm. kon yàlla nañ ko yàlla fayal ñu ngi ñëwaat ci yow léegi ñu bàyyi eh, sëñ Jibril parce que sëñ Jibi mhm. eh, sëñ Moussa dina ñëw ci sëñ Moussa lim li wax sëñ mm-hmm. sëñ Modou Sofa waa mm-hmm. yi waaw waaw soose yi soose yi ci kanam sëriñ bi nee ak soose yi tamit ci mooy sëñ Aliou Thiour ngal doole mm-hmm. euh, sëñ Jibi bisimilah bisimilah moom nag sëñ Mamor bul fàtte moo coordonné plateau bi moo ko coordonné sëñ Jibril euh, wax ni Ashura bi euh, day bis boo xam ni waris na cee mën a def plateau ci guddi gi mu yaatu ñu waxtaan ci waaye bi ñu xoolee ba xam ni Cheikh Modou Moustapha ci la feeñ rek ci lañu ñu Cheikh Modou Moustapha mu baax mi accordeel ñu invité ko mu ñëw toog loolu yëpp bokk ci ab liggéeyam ñu di ko ci sant bu baax a baax. Aram daanu na eh, mhm. ca Thiès. waaw ñu ngi koy siyaar bu baax di ko mhm. nuyu. Ah, waaw waaw soxna Aram sama yaay soxna Mariamu Dieng. koy siyaar wér wér Aji Fan Mbacke Aj. dëgg la itam ñoom ñëpp daal fi mu ne nii. Mhm. ñëpp a ngi jàpp Touba TV. di ko di ànd ak ndax message yi moo nu ko wax. dëgg la kon ñu bàyyi sëñ ji bi mu nuyoo. ñu doog a bàyyiwaat sëñ Moustapha mu continué ak ñun. tabarkalla bisimilah. awuzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما بارك برام توبا بك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نيوغي لين دي نيو دي لين زياره دي لين دوك شي بس ماغ بو سيل بو تيد بي دي بيسوب الاسلام واي دي بيسوب سيرين توبا دي بيسوب سيرين موسى نيوغي جيتال شي سونو نيو شيخ محمد منتخب ñaanal ko mu yàgg fi lool ci wér nuyu tamit si Ahmadul Ahmadunil Muxtaar ni ma ko koy faralee di waxee dama naan yàlla na lépp muxtaare ci barke Cheikh Ahmadou ñu ngi nuyu bu kilifa yu tedd yi di ay jëwrinam mu jiital leen di Serigne Cheikh Mbacke Madina ñu ngi nuyu Cheikh Abdourahman moom Serigne Cheikh Gaynde Fatma nuyu tamit njabootuk Serigne Cheikh Gaynde Fatma gépp ci loxoom suñu sëriñ Cheikh Moustapha di ñaan yi tamit suñu sëriñ borom yokk ay leeram ak teraanga di nuyu bu baax a baax suñu wasi Cheikh Mouhamadul Moustapha moom sëriñ Mbàkke Mohammed ak mboole Cheikh si Cheikh Moustapha tey ji nag ñu am mbégte teew ci plateau da ngeen a baax lépp yéena noonu wax dëgg yàlla toog ak sëñ day xaw a diis rawatina ñuy waxtaane koo xamante ni wax dëgg yàlla Cheikh Moustapha damay wax ni référence la daa am wax ju mett joo xam ne damay dégg Cheikh Bara Mbaye di ko wax waaye day dëgg dañu yoonu murit bu amee sëñ Touba waaye bu egsee fii mu egg Cheikh Moustapha wax dëgg loolooy dëgg c'est-à-dire que organisation bi ndax tubaab bi sax seen bopp loolu lañ jàppoon jàppoon nañu fu sëñ Touba yam fa yu ñu doon préparé don ñu doon def yëpp dañ naan seen rapport dañ naan daal comme ni ko sëñ bi junj ñuko ko cheikh ci si juboowuñ seen biir nangam nangam duñ topan nangam euh way wi sëñ bi doon way dafa wara nek nekk feuille de route bo xamanteni kep koy kuy kilifa waxuma sax kilifa diine waye kep jité dara rek war nga jël way wi tek ko sa wet muy muy ñepp ko wara ñepp ko wara yor muy voilà muy su muy muy su waaw feuille ndax dafa indi d'abord defi yi nga xamante ni moom la Cheikh Modou Moussa jànk jànkonteeloon tudd na ko léegi gis nga li ëpp solo ci yoon wi mooy organisation boo xamante ni bi Cheikh Modou Moussa di ñëw su ko defutoon yoon wi tey jii lii ñu ci am du sëriñ bi junj na ko bi fi sëñ Tuubaa di jógee rakkam yi mhm. daanaka am na su ñoo xamante ni ab taaw moo leen mag mm. ndeysaan dëgg la dëgg la waaye nga xool mhm. éducation bi nga xamante ni moom la sëñ Tuubaa defal boppam mhm. ci njaboot gi nga xamante ni moom la sëñ Tuubaa yaral boppam موي dëggante شيخ موسى شيخ محمد Fadel شيخ محمد البشير مبارك Barak ñëpp nga xol ñi Cheikh Moustapha yar diko ko ci Cheikh Abdou Lahad jëm ba ci ba ci soxna may do do gis différence ci domi seigne touba ci ñi seigne touba yaral bopam même éducation ak ñi Cheikh Moustapha yar même éducation waye lolu dafa ëpp ndax ñooñu am nañ ci Cheikh Moustapha ñi lo xamanteni ni ñi ñi am ñu ko seen baay dëgg la dëgg la ndax bu soxna may demee ba ni bañ xamee ne ñun ak Cheikh Modou Moussa ñoo bokk Baye yàggul. ci ndeysaan. tellement da leen doon wax nag man seen seen taalibe Baye laa. Hmm. di leen tarbiyewu. Hmm. waaye loolu bu ko defutoon mag ñi fi ñu leen war a teg duñ leen fa teg. Hmm. Cheikh Modou Moussa da daan ñëw toog ci pénc mi. Cheikh Abdou Lahad egsi mu wàcc siège bi mu toogoon toog ci suuf jël Cheikh Abdou Lahad teg kaw. Mm-hmm. muy gone koo xamante ni amaana mënoon naa ci ba ngeen jéggal ma kàddu gi mm-hmm. waroon naa mën a nekk ci daara ji jàng te moo mm-hmm. koy jàngal waaye boobu mi leen kii kat nii ma cër ko mooy mooy ab cëram te loolu bu ko defutoon toppante bi ak hiérarchie organisation bi am ci yoon mën naa bañ a am effectivement mais loolu lépp vision gisin bu sore xam àdduna mhm. moo taxoon loolu tey ji mu doon mhm. waaye mënoon na rek xool ni ñii kat sama sëñ Cheikh mii sax sama sama taawaleen mag mhm. xool ni kat man ah, lii ma yanu ci yoonu murid liggéey bi may liggéeyal sëñ Tuubaa tal naa leneen lu dul ay kopp koppal ak ay ay tout temps doy na ma sëkk ab liggéey ñu ma leen doole la dëgg yàlla nag loolu rek na sëkk waaw te loolu rek moom dëgg waaw <laughs> waaye nag loolu moo wax. am gone yi am na ci leneen loo xam ne bari nañu koy wax de. responsabilité la. sëñ bi junj na ko léegi. yor jiwu denc ko. ab jullit xiif. joxoo ko ko ba koo ko faatu. ñu rab ko ci suuf nga jël jiwu yi. def ci suuf bu ëllëgee yéen ñett ñëpp ngeen tase. yow ak waa ji faatu ak jiwu yi yëpp ngeen tase ci suuf dem ci suñu. bu boobaa lan ngeen c'est-à-dire que responsabilité gis nga Sëñ Tuubaa. dafay. responsabilité yu yor àdduna bi ci kaw gis nga zimaamu la war a si la daal fi yëddi boobu mu yor mhm. du du du du bëyitu kese du waxi kese te dafa rogalaat tey jii boo seetee Cheikh Mamadou Muntaxa loolu lay incarné Sëriñ mhm. Saaliw toog na fii ku yàlla suñu borom ëppoo ma yërmande ci ñoom dëgg la loolu dañ koo donn te muy responsabilité dëgg la Moustapha ñemewul benn yoon yor dara di ko jëfandikoo ak jullit am am benn problème dëgg la ñoom xalaatuwuñ tarixa xalaatuwuñ dëgg dëgg la dëgg la dëgg mindeefoon mindeefi julli di parce que dañoo xam ni dëgg la raa yëpp lislaam moo suuf sëñ tubaab moo ko yor borom tubaab barke borom tubaab wax nga dëgg de waaw kooku nag ku ko yor neexal de waaw waaw tegoo lu bare loolu mu waxit si début bi dama naan ko le xalif des temps difficiles doon ñu sëñ tubaab ci jamono ju metti benn 27 la fi sëñ bi bàyyi ko 29 crise économique des années 30 adduna bi crash Wall Street sëñ bi dana ci dikk. Hmm. loolu ak nit ñu amatul luñ lekk. adduna bi nekk ci crise bu doy waar. feebaru peste tegu ci. yeneen i jafe-jafe yu teg hmm. tubaab yi jël alal ji lenn di teg ci seen loxo. nit ñi da ngeen di dem xam la participation à l'effort de guerre ak lu ne ñu indil ñu ko tegal ñu. Hmm. ñu sonn lool. Seydou Moussa ci jamono jooju ci la tàmbali raay. maa loolu mhm. ñu tegal ko ci sart yu wér yu yu yu metti metti mhm. junni nit ak juróomi téeméer ngay indi ñoo xamante ni dañ leen di natt xool leen ñuy ay ponkal yu mat sëkk mhm. mën liggéey du ñu dul te danga leen di fay danga leen di dundal ndawal la ñuy lekk waaw <laughs> yooyu yëpp koy dégg ñu xaaj ko ay ay ay ay ay ay ay ay ay kii. section ay section ak group bu nekk ñu ne ko dina am cuisinier dina am xawma lan chef de gare dina am nangam mag yaa par quarante cinq personnes. nu ñu wax mu ne d' accord. nu ñu wax mu ni d' accord. Morel ay ay ay convention ay Morel la prom ak yooyu diw yeeg ceeb yeeg am ñu mu séddale nag yeeg daan na leen café beeg suukar gi moom may naa leen. maa leen koy yaral bis bu set. wala 1500 personnes nga café café ak suukar 1500 personnes par jour. waaw. waaw dëgg la de. suñu Moussa kon moom bis bu jot màggal la doon def. waaw dëgg la de. bu aajoo noonu li gars yi teg li gars yi naan raay bi si juróom-ñaari weer déedéet raay bi mi ngi tàmbali 29 la ko ba 31 mu gàtt gàtt def na ñaari at. 28 mois. ah ñaari at ak ñeenti ñeenti waaw. ñeenti weer. muy liggéey bu metti Mm-hmm. mu ànd koo ñoom te raay bi tamit liggéey ba da ca metti mm-hmm. ndax raay bokkut ak tali mm-hmm. raay dangay ngay ba pare doo a teg raay mooy foo fu ñu dem fekk mu mu xaw a mu xaw a moon montagne dañ koy dagg ba mu maase fu ñu fekk mu xóot dañ koy sëkk ba mu ràmbale ko ba lépp taal ñu doog see teg ñu ne ko ku mu jaar ci sa suuf da koy dédommagé waaw yëpp mu jànkonteel ko suñ mu dum ba indi raay bi am na journal bi fi suñ mbéygee si la indi woon mhm. tubaab bi loolu la wax euh, le les mourides et leur palais en tôle noonu la ko tuddee mu ne murid yi ak seen palais bi tout <laughs> palais fer nga xam ne ni ñu ko defaroon seng yi mhm. booba jamono jooju ko sëñ bi wax na ko ci way bi mhm. kenn mënta am sax néegu néegu ñax nga ah, seng rek day day doon seng waaw booba seng euh, daanaka tey taxawaayu marbre la am ci ci maalu maalu wax loolu ndax bu mag ni doon wax naan sëñ sëñ tuba doon wax naan sama kër gi dina dem ba doon sàkkatub seng mhm. <laughs> boobu mag ñi dañ naan ah sëñ bi sàkkatub seng <laughs> kon boobu kon tubaab bi ami seng waaw boobu ah, mhm. ndeysaan sa sa sa waajir maam borom gaawaan ah! Cheikh Anta ministre des finances <laughs> mu la jënd ba indu kon yooyu lañu war a tey jii wan nit ñi mhm. gis nga euh, Cheikh Moussa li mu def lépp defu ci dara yu baat mhm. diggante raay bi diggante procès yam ak tubaab yi diggante lijjante titre foncier yi diggante lijjanti plan jumaa ji diggante tabax kook financé kook dara amul ci dara loo xamante ni def na ko ci baat mhm. lépp da koo teg ci xel ak diisoo mhm. loolu nag moo war a delloo si nit ñi xam ne kat kilifa dafay diisoo ak ñi nga xamante ni ñoom ñoom ñoom la ànd waaye ñi lay mer ñi nga ñi maanaam ñi mer nga leen di woo di leen neexal mhm. bëre gis nga am na ci ay woy sax yoo xamante ni ak bon nañ ci ci ci ci ci jamono jooju ñoo xam ne dañ koy woy nëbbuñu ko mhm. di ko wan ne ànduñoo yow nii mhm. di ko wax ni ah ñu daal gëmuñu lii nangam ak nangam waaye lépp rek si mat gi ci njàmbaar gi ci di leen defal dafa mujj ñépp nan ma la wax lolu ma la wax lolu na way way deug li deug moy tay ji ñew na fi yow waaw dëgg la kooku dafa baax di ko wax rek waaw am na ñeneen ñu bëri su ma daan bañ tay ñew na suma daan bañ tay ji nanguna da mm-hmm. daa diko wax ñu wax mm-hmm. mm-hmm. waaye hmm hmm hmm waye nak nan la leen hmm lolu moy li jara won aduna bi muñ ngor nangu di la jox di la di la di la di la di la seet di la xëcc yéene na lu baax fas yéene yi tamit dara li nga ko doon seereel ak li nga doon séentu ci moom a du yàgg ba nga gis ci moom dara lu toll tey fatal ay na mhm. kon c'est un boo xamante ni wéet wéetali ko lépp la yemale foo ko fekk dafay nekk ci ay principe am te principe yooyu sëñ bi wax na ko mhm. jub rek ak ngor da daan wax sax man Cheikh Moustapha juboo ma doy dëgg la kon dañoo war a xam ne àdduna lu ci a nekk jub mooy li nga xamante ni moom mooy jëriñ nit ñi mhm. Sëriñ Tuubaa da leen koo wax dañu leen lu tax du ngeen gis euh, gone yi di jàng yéeg ci ron mhm. jub gaa tax <laughs> jub gaa tax ah, xale yi garab gu la ñuy yéeg mhm. <laughs> dëgg la guy rek <laughs> waaye ron jub gaa tax tawarkal kon nag yal nañu suñ borom xal si njub. jërëjëf sëriñ bi maa ngi la fekk fu am solo. naa ne maa ngi jégalu sax dafa doon benn <laughs> waaye indi uh-huh. am solo. Uh-huh. indi nga si tey uh-huh. dañoo war a wax nit ñi am lu am solo si. Euh, sëñ Abdoulaye ma ma ma ngi koy wax fan yii dañuy l'islam juróomi ponk la. Mm-hmm. waaye boo seetee ñaari at yi yëpp wala ñetti at yi daanaka ñeenti ponk rek la ñuy <laughs> dëgg la de ñii xeex lislaam bu leen neexee mën nañ koo wéyal feeg dix ans bu leen neexee ñu ne jullit yi duñ def seen juróomeelu ponk mm-hmm. mais mais mais jibi juróom yaa ngi mat de waaw Touba lay mate. dafa dafa dafa am na ci ñu ngi aju Touba. aju ilayya fi baytihi kaabatan musibat wa saayir bayti hindi wal ama xurima ñun ñaa ngi ñëw Touba fa la ñuy ajee màggal gi loolu la wax de. aju aj si leen ilayya ci man. Mhm. fi baytihi ci sama néeg bi. Mhm. dëgg la. Uh-huh. wax sëñ gaa yi nga xamante mhm. ni ñu ngi xool si place yi nga xamante ni moom moo am ci àdduna bi mhm. ginnaaw euh, baytul euh, Makka ak baytul Maqdis am na mhm. troisième boo xam ne xamuñu ko ñu bëri jàpp nañ ne tey jii Tuubaa la yooyu nag sëriñ bi da cee indi yu am solo ci ni ko sëriñ bi dëxëñee ci biir ak yu mel noonu kon nag dañoo war a góorgóorluwaat ci lii jàpp ko xam ni tamit Sëriñ Tuubaa li mu teg projet de société la projet boobu kenn ku nekk da nga cee bay sa waar di nga liggéey Sëriñ Tuubaa mhm. ni ma koy waxee mooy kenn ku nekk sa si doomi Sëriñ Tuubaa yi wala xalifa yi mhm. kenn ku nekk boo xoolee sa tour mooy sa mission ci liggéey Sëriñ Tuubaa bi dëgg la dëgg la mhm. kon nag gannaaw euh, sëriñ bi tey ji mooy borom jataay bi duñu guddal dañ koy bàyyi rek tubaarkalla mu mu mu gën a mu gën a mu gën bégal gaañi mhm. waaye sëñ Alaaji vraiment wax dëgg yàlla bég mhm. nañ mhm. ñoo ngi nuyu bu baax a baax a baax sëñ Lamine Diop werakaan ndax lii it wax dëgg bu am solo la dëgg la am solo la dëgg la dëgg la portrait la daal portrait bu am solo ci ci ci Cheikh Moustapha yàlla na ko suñu borom fay amiin yaa rabbi jërëjëf euh, directeur euh, Serigne Djibril Ndaw ci euh, wax ju am solo ji nga xam ne yow wax nga ko moom nag c'est normal nii mu analyser ci Cheikh Mamadou Moustapha euh, yoon la ndax dundam gépp ci yoon wi la ko def ci gëstu la ko def waaye tamit bu bokkee Daaru Xuddoos te it bu toogoon di wax ci maam Cheikh Anta wala sëñ Fall wala ci keneen ku mu mën a doon it nii la koy defee loolu moo di murit waaye nag fi nga bokkit war nga ko maîtriser ba boo ci wax wax ci lu nit mën a dégg mën ko jariñoo ñu ngi lay sant bu baax a baax di siyaari sëñ Sidi Ndiaye mi ngi fële ci France ñi ñu topp euh, ci liggéey bi ak Serigne Mbacke Ndaw moom tamit ñoom ñi ngi lay nuyu bu baax sëñ Sidi moom nee na mi ngi nuyu sëñ Alaaji euh, léegi la may yónnee benn message di ma fàttali lu yàgg loo xam ne ci jàmm gën euh, ñoo ko daan ànd mu mu ku baax moom tamit noo koy di ko siyaar bu ko defee sëñ Mamor dama lay bàyyi rek question yi tey yaa ciy dem ak sëriñ bi euh, bu ma amee lenn lu ma koy wax daal nga xamante ni moom laa ciy sof rek yow nga wéyal li nga xam ni mooy question yi mooy dénkaane yi nga xam ni sëriñ bi dénkoon na ko Cheikh Mamadou Moustapha ndax li mu réalisé li ko bi dénk nga xam ne ay dénkaane la wala ay ndiggalam la wala ay santaaneem la mu ngi ci biir li nga xam ne mooy réalisation Cheikh Mamadou Moustapha man benn question boobu laa xam ni mooy sama question yi ci des moom dama lay bàyyi dama lay sëñ bi rek. foo foo foo foo dugg ak moom rek. waaw boobu sax mooy mooy question bi. naa mhm. ngi koy bàyyi moom. Mhm. man daal euh, li ma jàppee li liñ fi jot a wax yëpp. Mhm. sëñ bi wax ko. bi ko sëñ. Euh, li sëñ bi doon wax waaw. moom la sëñ Alaaji jàng doon jàng nit ñi di ko déglu mm-hmm. waaye jibi ndaw jàngat la ko def dëgg la waaye ak mat la rek mm-hmm. sëñ Modou Sofa noonu fekkewuñu ko mm-hmm. ndax quarante cinq la fi jóge waaye boo seetee ñi mu yar ku mel ni sëñ Abdoulahat sëñ Abdoul xaat boo seetee ni muy ka ni ñuy ka ni mu ni ni mu daan kaalawoo sax lañuy lañuy la ñuy kaalawoo dëgg la maam mais xool leen ñoom nga xoolaat ay turandoo turandoo sëñ Modou Safa. Mhm. doo ci gis ku matadi. dëgg la. tàmbalil ci sëriñ Modou sa jëm parce que mën nga ni sëñ Fallou ñi ko jëkk a tudde doom sëñ Fallou ci la bokk. Mhm. Mhm. xool ko ni mu uufee rakam. boo déggee ñu ne boo tuddee nit doom da ciy am juróom-ñaari jikko. waaye xool xoolal kooku. rek sëñ Fallou ne yëpp rek. waaw yëpp waay. waaw doo sëñ Fallou ne yëpp rek yëpp waaye xoolal tey sëñ Safa Fallou. <laughs> waaw nga xam ne sëñ Modou ko yar benn. ñu duppee ko. nga xool sëñ Moustapha Bassirou. xool sëñ Modou Rokhaya Mbacke Darou Salaam. c'est-à-dire kon da léegi ñooñu ñooy portélé sëñ Modou Moustapha tey sëñ Modou Moustapha Moustapha Saliou waaw kay sëñ Moustapha Saliou sëñ Modou Moustapha bu amul woon photo ñooñu ñooy ay photo dëgg la sëñ Moustapha moom sëñ Abdou Khadir dëgg la ci mbaax gi Moussa boo ko toppee foofu sëñ Moustapha sëñ Abdou Lat boo ñëwee këram màggal sëñ Abdou Lat da nga naan xalifa bi moo dëkk fi ñëpp di ko ñëwal ci yaatu gi ay et puis dangay am fayda bu ñu la tuddee sëñ Modou Sofane mhm. mais li ma ca daqalaat mooy da am fit mhm. sëñ dan mu sëñ Abdoulaat dafa am lu mu ci nettali mhm. loo xam ne man dama koy wax di ko waxaat di ko waxaat te loolu mooy wóolu sëñ Touba dañ koo porté plainte ci gasub raay sëñ bi wax na ko léegi ñu ne ko tubaab bi nee na da koy fay tubaab bi ne ko ndax di nga fay mu ne fayuma bi mu génnee mi ngi ànd ak sëñ Masron ak sëñ Modou Moustapha ak keneen koo xam ne sëñ dan bi muy wax dane du ma tudd tur yi bi ñu génnee kooku ne ko mbàkke tee ngaa fay mu ne ko bor bu ñu lépp ngay fay waaye bor bu ma xamul fu ma ko lebee du ma ko fay mu ne ko tubaab bi bi mu naan la ndax di fay gis naa mer moo xam ne ci kanam gi fay kon kooku moom moom bokkatul woon parce que tubaab moo neexutoon a ñeme dëgg la mu daal di ne ko nguuruk France mu ne ko xeex ñaata tànk koy def booy xeex ñaata tànk ngay dër mbeuri di beure sax da ngay deg ñu ne jital na tank bee la gën mane nangam nangam mm-hmm, mm-hmm. mais da ngay deur sa ñaari tank deug la mu na ko koy xex ñaata tank ngay hmm pour dalal xel ñoñu moo tax mu wax lolu de mm-hmm. koy xex ñaata tank ngay deur mu na ko ñaari tank mu na ko suma lonkon sa sama tank samp ben bi France gep fak jëm ci sama kaw ngir galankor liggéeyu seigne touba bi te kama doon far farma, hmm kama doon far buma faré hmm danaa jaar ci seen i doq ñoom ñëpp liggéey jumaay sëñ Tuubaa ji dal ne ko te xeex bi sama ñaari tànk laa ci dugg waaw kookoy Seex Mustafaa Mbàkke question bii la sëñ Mustafaa Kan wax ci ngay jëkk a ñëw réa maam dénkaanam dénkaan bi ci jëkk wax nga ko sànq fexeel ba sama jëmm ji dem Tuubaa Mbàkke loolu ana loo ñu ci dolleel ak lan nga ñu mën a analyser jotaay waaw dama damay njëkkee ci turandoo yi ndax dafa am ñaari turandoo yoo xam ne defe naa ne xamu leen leen. Hmm. kenn ki Mamadou Dia la tudd ma ko wax. Euh, jamono Senghor. fii ci Bourguiba këram. lu mu seq ak tukkuleur bu doon bu doonu tijaan ba di ko tuddee doom dafa lay woon kon diplomatique Cheikh Moustapha. dëgg la dëgg la. xalifa Thierno Souleymane Baal tey ci kaw suuf Moustapha Kane la tudd il a quatre-vingt-quinze ans ci ci ci tournoi Cheikh Moussa fu nekk nii mi ngi fii mi ngi fii wër terminus ndax ne woon naa ko naa leen télévision ba ñu gis la ndeysaan moom Thierno Bokar Kane mooy baayam maamam lañ déporté woon bi sëriñ tubaab di wàññi jóge jógee di ñëw Gabon fekk fa maamam maam ji di ko fóotal Cheikh Ahmed Tidiane Wane ancien ministre au passage maa ngi koy nuyu. Mhm. moom fu yóbbu ne ma kii il faut nga xam ko. Mhm. Mhm. bañ demee sëñ Moustapha kan moo ma nettali lii kan la euh, sëñ Moustapha Kane la tudd. Hmm? ñu génn Ahmed Tidiane Wane ne ma sëñ bi ab torodo. ba la nee sama maam moo doon fóotal diw war nga koo fonk. dëgg la dëgg la dëgg la. biñ demee ni mu ngi ñëwoon téere masal kul jaan boo xam ne sëñ Abdoulaye moo ko joxoon signal ko ko. góor googu yi la 95 ans mi ngi fii. moo nekkoon adjoint gouverneur Abdou Diouf. Mmh. dëgg il faut ngeen def waaw waaw. la ñuy yenu rek. <laughs> il waaw mooy mooy mooy xalifa Thierno Souleymane Bal ci côté yaayam. côté mmh. am foofu la jógee Abdel Kader Kane ma français yóbbu woon. Mmh. ko. Abdel Kader Kane euh, maanaam maam maam la ci moom. ay almaam bi lañ voilà ay almaam bi lañ mm-hmm. donc ci tournoi yi lay wax dëgg la ak ful la ji mm-hmm. euh, tudd leen sëñ Moussa mu sëñ Saliou waaw waaw sëñ Moussa mu sëñ ne gis nga communicateurs yi nga xam ne dañuy nekk ci sëriñ kër sëriñ si galaayaa waaw dañuy romb kër sëriñ Moussa Saliou moom boo duggee moom waaw euh, ak pasteef ak dëggu <laughs> uh-huh. euh, xam nga Moussa mu ko defut mm-hmm. maa ngi wax sànq ne ko woyal ci séeréer parce que am na séeréer boo xam ne bii sëñ mm-hmm. Moussa lu tudde doom te te du murit ba tey dëgg la Moustapha Moustapha euh, Camara la tudd mm-hmm. làqu na bu yàggut euh, doomam Boubacar Camara sama goro la ah, te kon diplomatie boobu monsieur Chamou Sam ba ay jàmb di ko tuddee doom lañu nan la defoon loolu mooy wax ji donc loolu. ci turandoo yi la laa doon wax mais. dafa am lu seqoon ak nit ñëpp. murit yeeg ceddo yeeg euh, yeneen euh, yeneen kilifa yi nekk ci yeneen tareex yeeg. ñëpp la sekkaloon ba ñooñu duñ ko mën a muñ. duñ ko gisul duñ ko mën a muñ waaw ngeen fàttaliku ne euh, guleet gouverneur général bu Sénégal di fanaani Touba def fa ñetti fan muy fanaan feneen fudul gouvernance mhm. defal na ko Cheikh Moustapha kon kóoluteef mo am ci loolu. général de Gaulle ñëw boobu mu ñew 1944 Dakar. te te ngeen am photo bi. ka ko tax Cheikh Moustapha la xam nga lan la France doon wax. doon préparé. pour def Cheikh Moustapha sultan du Sénégal et du Soudan. lolu Cheikh Mbacke mom Cheikh Moustapha mom Seigne Bachir momako ma ko wax. nee naa Cheikh Mbacke Ndiol. moom mi ngi ko tàmbalee ci sëñ Cheikh parce que dañuy français day waaj loolu ngir def proclamation. Sénégal def ko Cheikh Moussa sultan euh, Mohamed V du Maroc. Mhm. Dir bi Cheikh Moussa France de kon nañ ko def doomi doomi deux, Cheikh deux, Moussa mhm. bi deux, Cheikh deux, deux, mhm. Cheikh deux, deux, li li xew na fi donc daf lay won fi France deux, Moussa parce que chance boobu li ko kii waxee. Mhm. grande dépression boobu nga xam ne bii. li mhm. euh, la koy gën a mën a fàttali. xëy na <coughs> at yi ñaari ñaari at yi bokk na ci waaye crash Wall Street bi amoon 2008 ba tubaab yi xaru. Mhm. crise 1929 grande dépression bay maanaam moo ko raw. ñu biir nekk ci grande dépression bi ñu seconde guerre mondiale éclaté. tubaab yi xeex yi murit yi tabax déewub yàlla ci ci ci ab régime kon loolu dafa doon loo xam ne lii mën mën na si koon a ñàkk a mentionné par rapport ak maanaam turandoo yi mu ñëw ci dénkaan yi nga baal ma même da dégg la dee dañuy liggéey ba guerre bi éclaté mu tubaab yi kat ñoo ñuy liggéeyal kii waaye nag ak nit daa daa daa daa nanguwul say sa sa say nit ki ngay liggéeyloo nekk ci fitna nga neen ko ndax boobu bu ko neexoon ni contrat la seen taxaw mm-hmm. bu ko neexoon ni fay naa leen mm-hmm. bu ko neexoon ni feer baa bu ko neexoon waaye dafa ànd ak ñoom ci ni ah ñoom kat ña nga ci fitna kon nag. Euh, ñu arrêté tuuti ak nit dañuy. booba liggéeyu raay bi la wala kii bi jumaa ji liggéeyu jumaa ji jumaa ko tàmbalee jumaa ji euh, presque euh, trente deux ba. kii ba quarante quatre trente neuf. Mhm. guerre bi décla déclaré mhm. quarante cinq avant guerre bi di jeex. sëñ bi làqu sëñ bi làqu waaye bi guerre bi wettee rek dañuy ñii kat kon nag nañ taxawal liggéey bi. la. ci wàllu ak jumaa ji mooy raay bi. Mhm. il fallait nga am raay bi pour achever matériaux de construction pour jumaa ji ndax mënees ko sëf ci mbaam ak i gëléem dëgg la fer bu toll noonu ak ciment bu toll noonu donte ay gàllankoor lañ lax ci biir ñoom kooku de waaw waaw waaw kon loolu dafa doon loo xam ne lii liggéey bu toll noonu ci jamono jooja ci contexte booba mënees koo imaginer te lii dañ ko war a bind nag ñoo ngi ci bind sax nag dañ ko war a bind ngir gone yi xam maanaam ay ay référent ndaxte bu ñu dee xool modèle Euh, lol doyul sekk ci mëral mhm. ndax ray bo ko don bo don évaluer yi de nga mam ñeggi dina dem lu mu gatt gatt gatt gatt 100 milliards de francs CFA ci yo xamné 350 personnes ñoko financer 350 000 personnes ñoo financer 100 milliards ca boba ah, ca boba 350 000 personnes communauté mourid gep ci lañ waron toll à peu près mhm. ñu financer lolou té immigration amutoon gasuñu woon ay or def ñu def ñoon commerce international lepp ci mbay ak taw lañ ko wéeroon kon nga xamné suñu borom dafa dafa dafa dafa barkeelal liggéey boobu mm-hmm. euh, donc ci ci ci euh, li ngay wax né denkan yi mm-hmm. man euh, néegub yalla mom mo ci jitu mm-hmm. loolu moy moy sacrifice bi ñu def waye dama koy wàccee ci suuf indi tout tànk yi nga xamné ne daf leen waroon jangal jangal dafa leen waroon saytu ni ko ni ko sëñ ji bi waxee léegi. Mhm. Cheikh Abdou Lahad boo xamul ne bi sëñ Touba di génn tout tànk la woon. Mhm. da nga sëñ Touba moo ko yar. Mhm. dëgg la dëgg la. ñi sëñ bi yar. déedéet. waaw Cheikh Cheikh laata muy nekk ci xilaafa gi sax maanaam ñëpp xam ne kii. bu dee sunni yu dong nga war a doon. moom mën naa tax nga jaar ci gëm sëñ Touba. dëgg la. dëgg la waaw bu dee bu dee bu ñuy woteeg sunni yu mhm. loolu dong lañ doon xool mhm. jëmmi sëñ Abdou Xaadir ak nam daan nam daan farloo ci jaamu yàlla mhm. ak teewlu gi war naa tax moom nga jaar ci ñëw sëñ Tuubaa dëgg la ndax kenn ci ñoom bokkul ak sa moom bokkul ak sa borom xay bokkul ak sa borom style maanaam sëñ Abdou Lahat bokkul sëñ Abdou Xaadir sëñ Abdou Xaadir bokkul ak sëñ Saliou sëñ Murtala euh, ma maanaam sëñ Murtala tànk bi daan metti muy sox di dem daf may fàttali ñet ñaari guddi ndakaar yi nga xamni seigne touba mu génnee ba muy dem ci oh. batu ba ma ngay soox waaw kon ñun dañu wara xam li ñu doon lan la hmm seigne touba lool la ko Rasulullah sallallahu alayhi wasallam jaraloon kon ñun warna am lu ñu jaral hmm mënuñoo dox n'importe comment di di com di di comporter n'importe comment hmm sacrifice la doon hmm deret la laaj wala ñaq ñaq wi mhm. léegi mooy deret no laa charami ne mu am sa moom benn la xumul janna mhm. loolu eh, dafa doon loo xam ne kon buñ wël buñ buñ génnee néegub yàlla bi tàmbalee ci suuf yi muy jàngal nga xam ne suñu borom li mu njëkk wax mooy iqra jàngal mhm. xam-xam saa wasalam waxoon ca saaba yi ne leen dem leen wuti xam-xam donte da ngay dem ba Chine mais bi muy wax dem leen Chine gars yi waxu leen ngeen dem Chine jar jàngi chariatul mutahara moom mooy charia Mhm. kon yeneen xam-xam lay wax yeneen xam-xam ngi yoo xam ni mhm. yu xalaal lay doon nga war koo jàng ngir jariñ sa societé mhm. ñu mën a jaamu yàlla dëgg la waaw kon dafay rejoindre li ji wax sànq ne wàccuwaayu Tuubaa ci àdduna si fi mu ne ñi ngi nelaw nag ñun waa Tuubaa ñi ngi nelaw ndax yëgu xamuñu ni ñu nit ñi ca biti jàppee xamaguñ ko ndeysaan xamaguñ ko sëñ te sëñ Muntaxa nañ ñaan mu yàgg fi loolu te wér. amiin yaa rabbi amiin te te te ñu te ñu te ñu gën koo saytu ci anam gu ne. te ñu ñàkk. ci anam gu ne. anam yëpp ñu ñàkk seen moo bëgg a wax. Euh, maanaam gis nga sëñ bi gis nga mm, sëñ Mountakha moom fi mu nekk nii. Mm-hmm. di wax lenn lu joonu jëm ci moom. maa ngi koy jéem a xalaat mën naa andi jéey ci àdduna si lu leer daal wax. Ah, waaw waaw. Mm-hmm. daa am fu ko fu ko jullit ñi teg. Mm-hmm. ko jullit ñi teg laa dëgg la jullit ñëpp xam nañ ne kii njariñul doomu aadama yi la dëgg la te doonoon lu toll ne tarafetal ani ci borom Tuubaa borom Tuubaa mu meloon mhm. Mhm. maam ci moom mi ci a a xame bi lewetuk sëriñ bi a mhm. dékkuk sëriñ bi ci moom mi ngi koy xame ak am fitu sëriñ bi andil ma daaji ma bindu si lëf ci làkk wolof ci sang boob sang nag maasam ba ndax géeju ngëneel la di dàggay xéewalug ña ko gis taar nañam jamonoon teel déglu leen maati jirim yi ak baaye yeeg miskin yi ñëpp la fat keram la ñuy yendu moo tiiñal ñu bon ñaati taba waxoo daara settantal ko seetlu ba tey yoo foo na bi nasri jàngal leen ñaayaati topa ko nopp ay magam ak wajuram di yërëm rakam yow fi ñamo yor ci ato ak yete serigne sepp ak ñañu bot benno gërem ko ba fab tampey gërem jox ko muy banko njariñ yaati kana fasan khalisan bal bi rahmatihi lil khal khilana, wa mikasarul rul fu yoo daati kii saalikun xëy di mag gor lii meloom waati yéesul ëppul yéexulit diisul bewul waruwul yàkkamtiwul laawul du xeeb ku ñuy teete jayoog jayeeg wututur doo gis mu gaar ko ci mbir laajal ma ñuy sóobi ñooy xam bii galeen xaati du tëgg bàkkaar du tulliw ay gawar bu mu yar du daanu cim lef du mam mu fas du lu péeti ndax imam la di su ko sabal xol bayaanata set filan la may nii du gottee mbaa mu gëddaate ña koy jox ak ña ko laajay yam du tontu lu dul lu sa duxul guyute cay ree du dig taate maa xaala laa xattu illaa fii tasawudihi jaaraama waaja ko wax kii mooy wayam waati jëmbët yamaamam jëmbët suuxat ko nemmiku ko moo dib liggéeyam du laaj nit foofu fër féete siyaara ak addiyaag wax jàmm sakku lu bon jub xocc dëggal yitteem la tiime koy woote wéetal sëriñ di ci dëppoog sunna nekk morit nangu dogal la fi dindee wuute ak joote pas-pas bu dër manam maslaa xam di jëf lu rafet xam yàlla xam yi la yii lay waar ñay réete xammee gawar yépp ak ñay tànku ak ñañu boot moo tax du fàlla sa kay nax gaaya fay roote kum jiite ak julli muy kuy dund mbaate ko dee bur yàlla jéggal ko laajal gaay a gis tuuti yeesal na daaru mi nan ak poroxaan dundalit warab ya baayam amoon du war du boddaate walam yëjji min sawil iflaaxi wal bu laxaa bi sajjaxe wa sihri min usril sa jiyaati demal ba tiib daaru tanzil ak mbulag yani mel OMC du xam lam naal doo kaate ku dégg lii nag war a xam bii sang xam ka mu doon ngir portale catalogue day junj mbir tuuti biral ko ci sant ak bàkk moo di doon yi sëriñ Basiiru turam waaye muntaxaa saati na yàlla dolli ko ak jàmm ak gudd fan te def du soppeem ak ah. jàllaate mucc ak mos ak ndolleen ak njëggal wér ak gudd fan euh, euh, am solo dañ lay bàyyi nga continuer rek sëriñ Moustapha Dieng agsi na moom tamit xam naa ni dinañ ko dalal léegi ndax tey jii day bisu Ashura euh, moom it bëgg nañ euh, mu indil nu tuuti ci Ashura nga xam ne dafa dëppoog ganek àddina ak Cheikh Mouhamadou Moustapha mii ñuy waxtaanee euh, incha allahu rabbi ñu bàyyi sëriñ bi fi mu nekkoon mu continuer ba ci kanam kon fi ma doon tàmbalee ginnaaw néegub yàlla bi sëñ Tuubaa dénkaane woon mhm. mooy Cheikh Moussa ni mu taxawoon jamono ji leen jàngal mhm. njàngale moom mi nga xam ne moom la alxuraan njëkk a wax mhm. ne iqra moo tolloon ci sanga salam wax naan dem leen jàngi xam-xam foofu la Touba toll fi mu ne. Mhm. te am na luñ ci jotoon a dox lu ci euh, lu ci ñi meñ ci Serigne Touba jotoon dox. Cheikh mhm. Mamadou Mourtada. Mhm. Serigne Cheikh sax xëy na école yi moo jiitu. ñëw fii muy muy muy muy njàng moo xam ne bii bari na ñoo xam ne ñii duñu ay murit mën nañu def ay témoignage. ay an ci bokk na ci ak keneen ak keneen. Cheikh Mourtada ñëw euh, créé système Al boobu. ngir njàng mi. Sen Muntaxa ñëw mhm. wallahi yalla xam na ne bi ñuy daaw barab mhm. ma hel xel mënta nangu mhm. nga ñëw Touba ñu ne Serigne Touba bind nangami ton te gisoo université dëgg la yaa trois ans lañ laa kon waxtaan nit naa ko man daal xel mënta nangu ñu diu diw na ci lu toll nii ak ba pare nga fa ñu ne amagul fi xam ne sëñ Muntaxa kon fi mu joxoñ mhm. xaw ma nit ñi dégg nañ fi mu joxoñ wala déet dëgg la waaye li ci gën a yomb fi mu ne moom la ñuy def muy tabax mhm. tabax moo ci gën a yomb mhm. lay na ca biir nag di ci nga xam ne tey jii nañu xam ne te ñu ngi may déglu ñoom commission yi nekk foofu nii nañu defar ab cyber institut bi jàngale cybersécurité la ñu njëkk def euh, sàmba yi nekk ci àll bi Mm-hmm. mooy xàkki sa système yàq sam njàng mm-hmm. nañu njëkk a def nañu am ay professionnels yu wër yoo xam ne bi su mu tegee ba tàmbali jàng mm-hmm. ba am ay ay ay ay euh, programme ba commencé njàng mi la ñuy denc ci machine ñu mën ko sécuriser te loolu dafa tumbaranke biir Sénégal xam xam naa li ma wax baax du ma ci xóot ndax mën na maa laal li ñuy wax secret défense waaye loolu tumbaranke la ci biir Sénégal muy sécurité kon nañu nañu nañu nañu bay xel lo manam ñi xam ñi ñi ñi xam ni dañuy wara tan, ngir ne programme bi lañuy jàng wala programme B wala programme d est-ce que sécurité bobu day euh, day match rek ci euh, machine est-ce que du bok est-ce que fi jamono tollu sax lu ar dekk bo waru ñoo gëna nekk ci lu ko sécuriser señ bi 24 heures sur 24 tuba waron na am ay vigile yuy wër jumaa ji 24 heures sur 24 tubaa waroon na am. Mhm. ay nit yu bi ñu loree nit ci kër kilifa. Mhm. matagul juróom-ñaari weer. foofu mhm. ci jumaa ji. dañ koy jam nit paak mu faatu. Hmm? Hmm, il y a quatre ans Touba ca kanam ci njiital sëñ Abib ñu koy ñaan liggéeyam bi suñu borom taxaw ko ci barki borom Touba. amiin wala ñu ñu ko àndal ak ñi yéene ànd ak moom sax te nekkuñ ci. waxtaanoon naa ak ñoom ne leen booba jumaa ji amagul ay caméra de sécurité mhm. am caméra de sécurité lenn la am lu ñuy wax control room fooy xoole kii dugg ak génn leneen la mhm. am nit ñuy saytu bisub ajjuma mhm. itam leneen la kaaraange moom suñ borom la ko digle dëgg la waaye ñaar la zahir rek baatin baatin moom xam wër na mën a ñanga ca waaye saayir si mënta ñàkk loola jar na sëñ Muntaxa xilaafa gi ñu ñu ñu ñu ñu jël ab général xam bi xam nañ xam nañu taalibeem mhm. bu wóor mu am ay élément ñuy garde sëriñ bi di garde jumaa ji di garde kilifa yi ak dëkk bi yéen ci kilifa yi mhm. waaw am na ñoo xam ne ñi ay cible lañu mhm. euh, dama lay jox exemple sëñ Moussa am sëñ Saliou bëggoon nañ ko fee lor. Mhm. nit nit a ko wax ginnaaw bi ne dañ ko naroon yóbbu ba àllub Kédougou ñu ñu denc ko fa. Mhm. ñan la ay Sénégalais lañu. dëgg la bokkoon ci système bi fi nekkoon. Mhm. xel yooyee nag ñu ngi fi ba tey jóguñu fi. sëñ bi ndax xel yooyee dafa am luñ bañ ci yoonu murit mu am ci lislaam mu am. yaa ngi may déglu bu baax baax baax. ñooñu ñi ngi fi ba tey xëy na ay tubaab la seen ginnaaw. Mhm. di leen seetloo ay bunt. Mhm. ngir ñu mën a fànq sëñ sëñ Abdou Khadir. Mhm. nitu yàlla wàllu yu kaamil la borom jamono la. Hmm? jéemoon nañ. dëgg la loolu da ko fàtte. dëgg la waaw jéemoon nañ nañ ko jéeme woon. su fekkoon ne suñu borom anto woon na ko noona. dëgg kon dañ naan fii baatin amu fi. dañ naan fii baatuñ am fu lu tax kookee amul xelam ne déedéet du ko fetal du ko jàmpaaka du koy indi ba ci teen mu taabal ko ci mm-hmm. waaw mais sëñ bi ah, xaar maygale ki naan baatin amu fi dama bëgg wax ne la ah, ki naan baatin amu fi xamul ne ginnaaw yonent bi saxaaba yi Abubakar déedéet euh, déggoo wax bi mm-hmm. dégg naa li nga mm-hmm. dafa am ku yéene woon mbir am ngir mën a fanq pas-pasub ñenn ci murit wala murit yëpp d'accord kooku la mu bëgg mooy jël jëmm ju sell joojee dugal ko ci teen ñu ne ñu xëy di wër sëñ bi ñu ne sëñ bi dafa xaru kuy xaru ku kon foofu baatil newu fa understand loolu lañ jubloon ñoom ba tax ñu doon def loola te jëmm ji nam toll ak sëñ bi nam wo nam woyofe ci saayir mënu ko yëkkati hmm? dëgg la kon nga xam ne kon ñoo ñooñee doon xalaat loolee ci jëmm joojee gisoon nañ ne kooku ab pilier la boo xam ne bii ci yoonu murit bu loola amoon kon yoon murit man naam xëy na nit ñi la ñaan ah fii ka dara newu fi mhm. def nañ ko sëñ Saaliwu ndaxam mhm. hmm? jëm jéem nañoo attenté à sa vie mhm. loolu mi ngi am ba tey sëñ bi dëgg la xam nga bu yàggut ñaari yi dafa am jàngat bu ma ci def gis nga at mi sëñ Muntaxa di julli si te santeeg président nekk fa mu am ay jafe-jafe. ba mhm. mu wàññeeku. Mhm. foofu laa ne euh, yoon wi jot na ñu am seen service protocole bopp. Mhm. gis nga fu mel na Touba bu président di déplacé protocole président. dafa war a ñëw tase protocole xalif bi fi nekk ñu waxtaan ba juboo ba xam ñu leen sëriñ bi mhm. heure bii lay départ mhm. fii lay egsi mhm. sëñ diw day ñëw sëñ diw day ñëw sëñ diw mbooleem xalifa bu bopp njabootu ko sëñ Tuubaa ku ne dañ laa war a yónnee motard ak escorte bu julli si parce que tamit président moo leen ganesi te ñoom it ay kilifa lañ dëgg la ñëw si jumaa ji di booxante wala ñu leen di jàpp dëgg la man yam naa ci seen boo xamante ni président Ablaye Wade ñëw ci jumaa ji di julli si sëñ Sidi Matar di ñëw Ablaye Wade dugg ñu tëj jumaa ji sëñ Sidi ñëw ñu téye ko naroon na indi incident boo xamante ni mhm. loolu lépp. ñàkk protocole bu ak waaw. loolu jamono jamono sëñ la woon. bi loolu boobu mooy xalifa boobu mooy xalifa boobu mooy xalifa ñu tëj jumaa ji li may wax nii sëñ Sow Toro mën na ko confirmer. dëgg la dëgg la ci yam nii ci buntu penku. dëgg la

ci lu mel na xuddaamul xaddim wala yooyu nan lañ. dooleel leen dooleel dooleel leen li wax nag ñu wuti expérience. boo xamante ni ay taalibe murit a ngi fi. yoo xamante ni xëy na ñii xam nañ protocole ñii xam nañ sécurité ñii xam nañu organisation ñii xam nañ kii ñooñu ñu associé leen. taxawal loo xamante ni bu ëllëgee. bu bu bu bu bu état ñëwee jàpp ci jàpp xayru. bu ñu ñëwut jàpp ci ñu organiser suñu bopp. journée xasida bi défaut boobu dong lañ moo la laaj gis mooy dañoo bàyyi oto yeeg nit ñëpp teg si jaxasoo ci biir ku nekk gaara fu la mhm, mhm. loolu nag euh, dafay aajo. Mhm. ñuy mais kenn ku ne doon sa gendarme organisation nit ñi kenn ku nekk da ngaa organiser sa bopp. dëgg la dëgg kenn ku ne da ngaa loolu mooy léegi nag war nañ ci xalaat nag. war nañ ci xalaat. ci am suñu système sécurité.

ña koy ña koy ŋànk dëgg dëgg dëgg ay murit sarex lañ doon yoo xam ne sëñ Tuubaa dong lañ gëm te man leen a xam am na ñu fi ne ah sa njaal bi dama leen ne ñoo ngi nelaw loolu laa leen waxoon yàgg naa ko wax dañoo bàyyi yëf rek sëñ Tuubaa amul morom mais nag di nga wax léegi kenn ko nekk yaa ngi yaa ngi xool sa kër na ngay doxe dëgg la mais l'intérêt général muy xilaafa gi nga xamné khilafa gi don rek sëñ bi mais ni gravité autour du du xilaafa sëñ bi comme ni ko ni nga ko waxee. dëgg am sécurité. bien sûr deug la mais Cheikh bassi mom dafa wara am sécurité. Mm-hmm. Mm-hmm. dafa war am sécurité. war na xëy ni dem rek dégg maam. kan ci benn benn Cheikh Bass. waaw waaw le porte-parole du xalif général. waaw ah, waaw d'accord moom heureusement maay sécurité mais. <laughs> mënoo sécurité Bakke nag Bakke léeg-léeg ku ma fa nekk da loolu dinañ ko seet. sëñ bi ah yow kay de sécurité sëñ bi. maa ngi ree sax barke sëñ Tuubaa. non sëñ bi waaw sëñ bi yaa ngi wax lu am solo. yaa ngi wax lu am solo Bakke. donc euh, Touba. Hmm. Euh, entre guillemets état la sëñ bi. Hmm. bañ ne Touba. Nations Unies. Mhm. Nations Unies en 94. Mhm. moo désigné Touba comme ville modèle dans le vingt et siècle. Mhm. ci àdduna si. ville modèle la Nations Unies wax booba la ñu waroon a jóg. booba parce que bu dee Nations Unies am na ci yoon mën nga koo jël ne lu positif la mën ngaa xalaataat ndax lu négatif la wala déet. sëñ bi dañu war ay xel di xalaat jàng ba ne ar dama koy wax humblement mais. manam yonum lim am ci ay ay ay boromi xel ak boromi xam-xam. jëfandikoo wuñ len deug la. te jot na fi nek ni gis nga gis nga turki ma ngi fatlikou am na kilifa turk bu lan ñëw euh États-Unis am ben réception ñu invité ma ci ma dem. bu ñuy dugg sax dañuy loué ben nek bo xam bi bii jàkka la hôtel 5 étoiles. loué nek bo xam bi dañuy génn yëpp suite dañuy génn yëpp def ko jàkka. te ay jeunes yu jàng ba ne ar gëm l'islam lool waaye doo leen xàmmee mais organisation méthode mhm. loolu la ñu ñoom nag loolu moo ñu manqué diir bu luñ fay nekk waxtu yi fa lañ koy julee fa lañ koy julee dañuy luwe suite boo xam ne bii mooy jàkka ji mhm. buñ génnee wax def seen ay conférence ay séminaire wax ci mbiri àdduna fu mu toll mhm. tubaab dafa war a xam mbiru àdduna fan la toll dëgg dëgg la am solo ndax sëñ bii man moo ma gënal ka dem Vatican keneen ak keneen. moo gënal Macky Sall moo gënal Macron. waxuma la ak Joe Biden. moom moo ma moo ma ko gënal man. waaw parce que moom <laughs> maam la yaakaar. ndeysaan ah? dëgg la d'accord kon léegi. Mhm. bu ñu yëgee bu ñu amee lu ñu yëg am lu ñu xam. Mhm. am lu ñu xam. Mhm. Hmm? am lu ñu xam. Euh, nañ waxtaan ak nit ñi. ñu junj leen ba xam. li ñu leen junj jub na wala dëng na. wala dëng na ndeysaan dëgg la noonu la mbir noonu la mbir yi war a tëdd waaye fu mu nekk nii. Mhm. Mhm. dañuy dañuy dañuy dañuy tañoo xarit di dem sëñ bi. dem c'est c'est dommage donc mhm. léegi. ma ñëwaat ci njàng mi. dama doon wax ne. université li ci gën a yomb mooy tabax. la ca gën a jafe mooy programme ya ak continue programme ya ak sécurité ba. université war naa am courant. Hmm? kan mooy fay courant ba jumaa ji sëñ mooy fay courant bi am déet. kër sëñ waaye Seigne mooy fay courant am déet université bi nu ko nara def kuy fay courant bi dans deux ans trois ans dinañ privatiser Senelec fii ci Sénégal ni ngeen xam lool loolu. Mhm. fek ñaar ñettal danañ privatiser Senelec xëy na ay tubaab mom ko wala ñeneen. Mhm. su boba la nga doon fay fay xëy 100 francs ni nga fay 200 francs parce que contrôle le taux dar lu dul euh, maintenance. Mhm. lool duñ ci xalaat ñun loolu dañoo sëñ bi euh muy yor ci ci ci ci euh, charge. bariwaa na bariwaa na bari na bariwaay goo xam ne. xilaafa gi bu naa am revenu. revenu lo xam li day ñew ci khilafa gi mo xam ay mais al azar université bi dañoo am ay carte transport. deug la yoo xam ne azar moko mom deug la ñu organiser nak yu ñuy organiser. Hmm? dëgg la mais loolu organisation. la laaj moo ko man moo ko man dëgg la méthode laaj ay nit ñu sérieux ñu motivé la laaj ñoo xam ne ñi xam nañ ne ñii ab cause moo tax ñu koy def. dëgg la kon bu sëñ bi waxee ci njàng te ma waxoon ci dénkaan sëñ bi sànq. Mhm. tàmbale njàng ma. Mhm. nga xam ne kon euh, système bi ñuy def nii. Mhm. Euh, nga xam ne ñoo ngi ci euh, sëñ bi dafa xam ci suuf ba ci kaw. nga waxoon maanaam daaray majaalis daaray alxuraan. ba ci université. université bi ñoo ngi ci Ashwara ah. dëgg la ñu ngi ci Ashwara j'ai compris. dëgg la mais lii ci Ashwara la bokk. dëgg la dëgg la n'est-ce pas. dëgg la université bi su paree dafa war a am lëkkaloog lëkkaloog bu muy def université ci yu mag yi. Mhm. ci fànn. Mhm. ci ay fànn yoo xam ne yi du yàq suñu pas-pas yàq suñu ngëm-ngëm. Mhm. science ak technologie mën na cee lëkkaloog MIT wala Harvard wala feneen. business administration et cetera donc loolu dama koy wax ngir ngir ñi xam naa ni ñu koy xalaat waaye. Mhm. dañoo war a njëkkanteeg jamono. Mhm. gis nga ñoo ngi ne ci pandémie loolu lañu wax. Mhm. feebar. feebaru ndóol moo ciy tegu. pandémie financière mooy tegu ci lii. loolu nañ ko xam. te tubaab yi ñoo ko sos ni nga ko waxee ñoo ko sos. bu la neexee mu def dix ans treize ans. jàng nañ téere xam nañ lañuy sëñ bi dañoo dañoo xam lu bari. suñ sëriñ bi daf ñoo xamal lu bari. nga xam léeg-léeg da ngay wéet doo xam koy waxal. moo tax Touba nii muy doxe nii. mënta wëy. mas ma waxtaan mas ma waxtaan ak sëñ Mamounum sëñ Fall bu yàgg ñu wax ci affaire ay département protocole. énergie agriculture. li ci waxtaan li yàgg na li yàgg na de. mat ëpp ëpp na 15 ans xam naa ne. ñu nan xilaafa gi na ko am. Mhm. légui bi na sax mais li ngay wax ci Touba ban solution nga japp ni mo régler loolu. kër gu am nay mhm. mhm. arabe français anglais italien espagnol. bu on organiser jëwriñ fay. organiser bi jox ko ndigal. mu ko ingénieur en génie civil. ay informaticien mhm. ay nangam-nangam ñu daje mhm. ay diplomate ñu daje waxtaan mhm. ñu nekk tuubaakat lii la xilaafa gi soxla ci departement bu ne lii la xilaafa gi soxla ñu génn nit ñi ñu teg seen ay CV ñu xool seen cursus fan lañ jaar fan lañ liggéey lan lañ fa liggéey natt seen pas-pas ci sëñ bi natt seen pas-pas ci sëñ bi dan nga jàng benn ar te gëmoo leen ci sëñ bi dëgg la lol amna dañ nak seen pass pass ci sëñ bi. te amna amna natin amna nattiin na nattukaay. kon lolou defe naa ne dafa don lo xamni li fi nek ni taxawna na. ci moko laaj. te xam-xam buy nelaw bu fi nela bu fi nela sëñ bi mi ngi fi xam-xam baa ngi fi di nelaw. dama damaa mos wax. señ bak son lo mané ko fi aduna bi toll. dañu wara xol mouride murit fu ñu nek señ bi def appel ñu woo Mm-hmm. ñu série leen en catégorie socio-professionnelle ñu sëñ bi wax ñu si ingénieur ñu teg leen fee ñu jàng santé ñu teg leen ñu jàng assainissement ñu dem leen ñu sëñ bi tëj leen ñu réfléchir mm-hmm. génne un plan directeur boo xamante ne si dix ans lii buñ ci sukkandikoo développé Touba amul sikk moo mm-hmm. wax ko ko mu ni ma man de mën naa leen a daloo boo leen mënee dajale mën naa leen a daloo fii ci kër gi daal may booleeg suñ bay tayif suñ bay loo yàlla dogal euh, mu wàcc ginnaaw bi sax am na bis ma waxtaan ak jëwriñ Mbàkke bi boo wax ko mhm. mu ne ma ah man nit de bu leen neexee hôtel bu leen neex ci Dakar ngeen wax ko mhm. nan tàmbali ko jëwriñ Mbàkke yi yaa ngi seetaan <laughs> waaw na ko tàmbali mos naa ko mu ne ma loolu yéen ñaar seen jotaay foog ma créé bu leen neex ci <laughs> Dakar sëñ bi semaine ngeen fii def maa leen di daro yoral leen lépp mhm. mais kon mu ngi war ni yëf yi ñu ngi ñëw ndànk-ndànk ñu fexe ba ñu xaw xam nga président Abdoulaye Wade boo gisee mu réussir li mu def loolu la. Mhm. bu ñu doogee toog appel boobu la def ci patriotisme. Mhm. woo fépp fu Sénégalais mën a nekk ci biti te dafa liggéey ñëwal liggéeyal ko sa réew. Mhm. tey jii bu ko defoon ni fu murid te dama leen di wax ni murid yi ña nga ba Nazar. ña nga fu ne sëñ bi. ña nga fu ne ña nga fu ne. demal ay naay ak société yu mag yi ngay dégg ay taalibe fay ne. ñooñu tey jii bu ñu leen woowoon ñu ñëw kenn ku nekk ak sa expérience. ñu tëj leen fii ci résidence Xaadim Rasoul bi deux jours wala trois jours. ñu génneel la document boo xamante ni su paree ñu ni yéen ñi nga xamante ni yéen ay financier leen estimer leen ko. ko estimer yàlla na doon mille milliards. mille milliards waaw ñu seen budget baa ngi nii. appel de fonds ñu jël Touba ca kanam jël yooyu yëpp organiser ko kii ko prioriser ko assainir xoolal ndox muy taa dootoo ko gis Touba. te sëñ bi dafa wax ne suñu borom na nga def sama dëkk bii di Touba mu mel na Madina. kon ñun waruñoo xool tuubaa di am poto poto. waruñoo xool Touba di am problème électricité. dëgg la waruñoo toog Touba di am problème transport. dëgg la loo xamante ni rek dafa tuubaa ku fa dugg da ngaa war a yëg di àjjana. vraiment mu bañ a mel ne sa àjjana jooju ngay wax climatiseur yi <laughs> tàngoor yi ak ci biir waaw dëgg la <laughs> dëgg la dëgg la. <laughs> Moustapha. Uh-huh. nag ma may tuuti rek ma am lu ma leeral ci lii. Uh-huh. ni mu ko waxtaan ak sëñ Mbàkke Soxna Lo dama ci waxtaan ak sëñ Abdou Mbaye Cheikh Khady mhm. bërki dem maa ngi ci waxtaan ak soxna maam xarim sëñ Murtala mhm. ma ne ko man li ma gën a metti mooy comme màggalu Touba mhm. murit bu ne dinga nga rey nag te nag yi nekkul nag yi waa dëkk bi tey comme par exemple tool bu toll ni xel comme wala wala wala wala wala wala wala benn tool bu ne woon nii sëñ Moustapha wax nañ dem Hollande comme ñoo gën a màcc ci nag ñu jël suñuy ndaw yi réew yu jàng ba pare ci ay murit ñu dem jàngal leen nan la ñuy élever ba am ay nag yu bari ñu ñu ne nag yooyu bi bi bi ñi ko jàng bi ñu ñëwee ñi ngi koy élever bërëb sàngam murit bu ne amoo droit dem jënd nag yi fooraa wala feneen ak feneen ak feneen loolu féete bor ci dëkk bi nga koy jënd see ñu ne lii nag yi sëñ Tuubaa mhm. ci gàttal nag yi sëriñ bi la Moustapha Kane 200000 am da koy denc ba dem Touba am na sax nu muy demee ñu ne am na fu ñu ko stocké wala nangam ak nangam. léegi loola jeex. ñu ne soble. par exemple ñu ne soble. ñu ne am na tool yoo xam ne fi ne mi ngi nelaw. te nangu naa ji loolu. ñu daal di jël loolu daal di jël suñuy saaki so euh, defar maam deux ans ñu ne dañuy dañuy fexe am jiwu soble mais murit benn murit amoo droit dem jëndi benn saako soble te binduñu ci Touba. parce que ñun ñoo koy consommé mais ñeneen ñooy ñëw jariñoo ko. mooy organisation bi rek mooy li ñu wax rek nga xam ne. te loolu tey lii lii sëñ bi wax ci université bi. Mhm. mënoon nañ ne loolu uni ci université bi la jëm. Mhm. nga daal di toogam yàgg nga léegi nga jóge ci loolu. computer ñëw à côté leneen ñëw leneen ñëw leneen ñëw te loolu ñun ñoo koy consommé ci biir dëkk ba. Mhm. te loolu benn imaginel ñu ne së sëriñ te ñun lu ñu song daan ko. Ah. sëñ Saliou da daan santaane xel comme gars yi dem xoolal. lekk tool ba naan ko dolli nu la nga ñu joxoon doylu kon mi ngi fi ngëm gaa ngi fi barki démb bi sëriñ bi ne xasaayit murid yi taxawuñu mais imaginez léegi ñu ne am nañ plus de cent tonnes de soble murid bu ne na jënd kilo recette bi ñëwaat ci sëñ Tuubaa mhm. ñu def ko quatre ans cinq ñu xool mhm. parce que attention de juif yi sëñ bee ñu gën a comprendre ñoom juif yi ni ñuy def mhm. tey ab juif bu nekkee fii nga yor bitik ci kanam ci wetam mm. nekk du euh, di jaay li nga xamante ne boromam mm-hmm. ma ngi koy jaayee fu gën a sore da lay jéggi dem jëndi ko mm-hmm. solidarité boobu am moo war a am mm-hmm. fi mu ne aynub sëñ Ahmadou Badawi bi man bu ma ko gisee ba tey kenn mënut a am man naan benn butéelu ndox xanaa bu ma ko gisul mar waaye bu ma ko gisee moom laay naan te loolu bari na kilifa yoo xam dañuy dem ba Touba def ko ci seen oto ñëw indi ko feneen ak feneen loolu la ñu waroon a def suñu maa ngi jégu ma cheikh bi mu taxawal daayira loolu la lépp lu ngeen di liggéey lu seen biir na ngeen xool ku ko ci mën ngeen jox ko boo soxla booy tabax kër xoolal maçon bi si biir daayira bi nga mm-hmm. jox ko c'est-à-dire que yooyu mm-hmm. de développement ak de solidarité il mm-hmm. faut dañ koy dëgëral ci biir yëf yi naam sax am na da ngay gis yow koy génn man par exemple rek man su may génn damay liir Touba nangam Touba nangam ci kii bu may jënd je préfère jëndante ak ak ak bi ngay jox da ngay waaye dafa des nañ ko gën a nañ ko gën a nañ ko gën a yokk tawar tawar sa da ngeen ko waroon a mhm. da ngeen maa waroon a yeewi rek su ko defee mhm. <laughs> <laughs> waaw waaw li xam naa li ñu xam naa ab parenthèse la woon rek dëgg la ubbi mhm. ñu waxtaan Mm-hmm. waaye tamit woo ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy euh, ñoom ñooy ñoom ñooy kilifa yi. Mm-hmm. comme ni ñu ko waxee ku mel ni ki jëwriñ mën na koo porter. Mm-hmm. ñu def benn recensement lancer benn forum. wala def def terme de référence yi. gars yi bëgg a ñëw ñëw. ñu jéem a xool daal bu ñuy xalaat. doo doo ko defee noonu sax waaw loolu doo ko jibaanee noonu. am na neneen noo koy doxee. am na neneen noo koy waaye jëwriñ moom. Uh-huh. na na wax ak Cheikh Bass ñu dem sëñ Mountakha ñu tàmbali lii. dëgg lii ça quinze ans vingt ans ñu ngi koy wax. dëgg la dëgg la suñu toogee plateau wax ko bu ñu fa jógee mu man mu daal mu daal def dëgg la loolu wërta ne dëgg xaalis ci àdduna si fi mu nekk nii mm-hmm. pour Touba du problème mm-hmm. man assainissement bi ngeen di wax mm-hmm. ak addition en eau potable jamono ne sëñ Alaaj Bara indi naa fii financement bi wallaay nancim indi naa financement bi dëgg la quatre kilomètres carrés la ñu waroon def assainissement bi ñu waroon def ndox mi jële ko Touba Bogo andi ko Touba. Mhm. dégg nga ba sëñ Baara nangu ci ba xëy na boobu wadd jàppoon na ne mën na koo def. mën na ko mhm. dina ko def. Mhm. mais booba la américain yi doon laaj mooy. buñ nee sëñ bi kat lii lañ leen lebal laaju ñu la garantie étatique lenn mooy sa garantie. bu dee gis nga ne mën ngaa fay cent dollars masalaan ci weer wu ne. nga signé ne di nga fay cent dollars. Mm-hmm. loolu day nañu garanti. dëgg la lii lañ doon laaj booba. Mm-hmm. kon lu développé Touba. Mm-hmm. ci li muy wax nii. bind nañ ci kayit ba teg ko. dëgg la agro industrie. nag yeeg euh, yi nag yeeg. der yeeg yooyu yëpp def nañ ko ba pare. dëgg la waaw. boo xoolee lii lii lii dee ci nag ci biir Touba. ci ci semaine màggal gi. ak xar. Euh, te yow nga mën a jël der yi waaw nga bàyyi espagnol yi ñëw jël ko. Mhm. italien yi ñëw jël ko. yóbbu ko seenub dëkk dafa ciy saak ak leneen ñëw jaayaat la ko teew nga mën a def loola. Hmm? deru nag yi nga xam ne nii tey wax damaa jël fauteuil cuir yeeg mais li ñuy sol dong ca Amérique ak feneen fu sedd fu ne muy manteau cuir defar ko fii lu yomb la. waaw hmm? ah, jafewul dara sëñ bi. kon euh, xëy na.

Euh, liggéeyub Serigne Modou Moustapha la ak dundam ak euh, ginnaaw sëriñ bi lim réalisé euh, te sëñ bi nekkoon na ci fu am solo waaye mu Moustapha Dieng mi fekk moom tamit ñu ñu ko ngir bëgg ashora bi ñu fàttaliku ni sëñ Modou Moustapha bis bi mu gane àddina waaw waaw wala waaw sëñ Moustapha yow mën nga ñëw mën nga ñëw nii bu ko defee ñu yeewi ñu yeewi ñu yeewi suñu directeur mu dem waaye euh, sëñ Modou Moustapha dafa gane àddina ci bis boo xam ni day bis bi bis bu barkeel di bis boo xamante ni euh, di bis boo xamante ni sëñ Mamor euh, ñu bari dinañ koy faral di waxtaane borom xam-xam yi ak kilifa yi ndax ñi gën ci doomu aadama yi mooy yonent yi te yonent yi yàlla ku ci nekk am na lum la teg loo xamante ni teg gu metti la waaye ba mu koy tegg bis bii la tombeel ba Jegal, lay jéggal euh, muy bis bu tedd di bisum ñaan di bis boo xamante ni bala ñoo ñëwaat ci sëriñ bi nga xam ni euh, li des ci waxtaan wi moo ñu koy tëjal ci sëñ Modou Moustapha euh, sëñ Alaaji Dóoru yëkkati li nga Cheikh lan nga ñuy may ci bis bi nga xam ne mooy Ashura wasalaatu wasalaamu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mbokki taalibi gannaaw bu nu sante sun boroom subhaanahu wa taala di dellu di julli ci sang sang yi di yonte almat alihi salatu wasalaam ñoo ngi leen di ziyaare bu baax waaye di jiital ci ziyaar gi sunu kilifa sunu lépp di sëriñ mun Muntaxa Mbàkke di ko ñaanal yàlla guddal fanam te yàggal taxawaayam ba naal gii mu fas yéene liggéeyal maamam gu tedd ga di xaadim rasuul sun boroom defal ko ci lu koy njortam ah, te mooy eh, bil Mustafa li banal xuduusul madrasatan eh, biha yazulul aza wal jëhlu wal kabat ah, di ñaan goo xam ne nag xaadim rasuul moo ko ñaanoon boromam ne ko nag ma may lu ñuy tuddee madrasa madrasa nag ah, buñ ko waxee mooy établissement mooy jànguwaay wax xam ne bés bu taxawee biha yazulul aza dana fi jële lor wal jeexlu ak réer wal kabat ak coono te bés bu fi réer jógee lor jóge fii ah, coono jóge fi ah, Mbàkke ñoo ngi lay ziyaare di la jox sa wàccuwaay man de plateau bi sax mënoon nañ laa bàyyi nga àggale ko

Euh, parmi les plus hauts rangs du paradis, euh, une cité de purification euh, des gens entachés de péché ku fi ñëw na set wecc ak i bàkkaar waaye boo xoolee dëkk bi moo njëkk ñaan wax ni wal takfi an nii kay kayda kulli zirtida wax nga ko léegi ci sa bir waxtaan na nga fege fexeel dëkk bi ci pexe képp kuy kat képp ku ñew ci dëkk bi di jalgati ci walu kar way gi ngay wax nga doon wax sànq rek lay justifier bu ci dess moy ya dan fi al aswa wal akdari bil mustafa idfa kull su andari yow sunu borom yow mi nga xamne yay rejeter lépp lu bon ya dan fi al aswa wal akdari ak nekh nekh yi bil mustafa ma ngi lay ñaan ci darajo yant bi idfa na nga rejeter rejeter kull su andari lépp lu bon lu dugg ci dëkk bi di tuba nag ma ko rejetel génneel ma ci dëkk bi ngi ñëw nag tuuti ci Ashura defal ma dëkk bi wa maska nijjal maskanal wufraani defal ma ko muy dëkkuwaayu njëggal waaye da cee teg na rush di ak jubal muy dëkkuwaayu jubal waaye wal irfaan nag ak xam-xam muy dëkkuwaayu xam-xam waridwaani nag ak ngërëm muy dëkkuwaayu ngërëm waaye wa daara ixlaasin defal ma ko muy dëkkuwaayu sellal wa sidqin nag ak dëggal wal warax ak sàmm waaye wa daara sunnatin defal ma ko muy dëkkuwaayu dundal sunna si yonent bi waaye wa man jan nag min bidaax defal ma ko muy muccuwaayu waay ah defal ma ko muy dëkkuwaay woo xam ne day génne nit ki ci ak lëndëm di ko yóbbu ci ak leer ah defal ma ko ah, muy dëkkuwaay xam-xam ah, ni ko sëñ bi waxee ah, dëkkuwaayu xam-xam xam-xam dafa am solo sëñ bi damaa dégg mu wax lu am solo du jàng kese day génn man waxuma xam-xam kese euh, dafa am ben borom xam-xam bu mag bu ñuy tuddee Ibn Arabi euh, dafa bind wax ne la perfection des vertus spirituelles euh, peut provoquer l'illumination du cœur sans même que la personne ait une connaissance théorique dépassant les vérités élémentaires kon yar ak teggin mo yóbbu nit waaw def naa sëñ bi dégg na li ma wax la perfection des vertus spirituelles

mën na ko yóbbu ci benn ascensionnement spirituel boo xam ne ci jeexal téere yi sax xam ne euh, euh, dara yóbbu ko du xam-xam mais euh, yar ak tegginam moo ko fa àggale sëñ Tuubaa dafa ne fa kullu man li gayrihi raama tibaax fa innahu yuxramul fawda képp ku ne dama yàlla te amoo ak yar ak i teggin nee na des na la xañ ak jariñu akub texe non seulement do doo jariñu mais doo texe moo tax euh, moy moy base bi man je ne dis pas xam-xam la connaissance euh, n'est pas une réalisation waaye c'est la connaissance réalisée euh, qui est une réalisation la connaissance réalisée nak la wax waaw def naa sëñ bi xam na bu baax mais may wax maa ngi tuub nag bu baax baax la connaissance réalisée wa du xam-xamu jang xam-xam ni rek jang teg si ni déedéet waaye fexe dund ko dund ko ni ko sëñ Muntaxa di waxee nañu dund Sëriñ Tuubaa damaa mës a dégg baat sëñ Muntaxa wax damaa mës dégg mu ne sëñ Tuubaa da jamono daa toll foo xam ne moom dañu koy moomale lu lu waaye jóg ne sëñ Bàmba ko waaye moom da du nangoo moom lu dul lu yàlla gërëm du nangoo moom lu dul yàlla dégg naa mu wax tamit nii bare na lu nit yor di ko sëñ Bàmba te xamul bi bi sëñ Bàmba di wàcc jamono jëli fi loolu moo ko taxoon na jóg jëli fi loolu moo ko taxoon a jóg kon moom fi mu woo bërki démb rek ak journée xasida yi euh, ku ne xam ne ni bis la boo xam ne euh, lëmbe na jamono li sëñ Tuubaa doon ñaan nag am na ko maa ngi ñëw ci Achoura tuuti euh, maa ngi ñëw nag ci Achoura dinaa ci sànni ñaari kàddu maanaam li ngay wax nii ci sëñ bi <laughs> waaw li mu doon ñaan leen rek la mooy ndam mm-hmm. ak añ bii nga may añal yow suñu borom mhm. bu mu yem rek ci sama réew bopp mhm. waaye nag tasaara ci mbooleem goxi àdduna bi mhm. ba réew moo dem fekk fa sama njaboot ñu seen kàddu ak a feeñal lii ma lañ ma doon bajal nag sama réew ba tax mu génn ma ñu taxaw ci goxi àdduna bi yëpp di ko tudd te kenn du dox seen diggante lool dëgg la Euh, li ma ci Achoura xam naa mm. damay bañ a jël temps bi. Euh, mm. lu ñu tuddee Tasua. Mm. Mm-hmm. ci baatu tis an mm-hmm. li yi firi neuf. Mm-hmm. Achoura ci euh, mooy dixième jour comme bisu ah, tay bi waaw. Ah, muy bis bu màgg nag bis boo xam ne bokk na ci particularité bis bi ku ko mën woor ko woorul ko ndax li tax moko bokku na ci juróom-ñaari fan yi serigne touba limalé ci at mini nii bu koy faral di wor lo nam ci yàlla da dana la ko defal sa xolé jimul muharram ci la bok moy ñetteeli fan ci wéru tam tamxarit mo coïncide ak màggalu serigne Abdou Khadr serigne Abdou Khadr bo démé ci irwa un nadim bu serigne mohammed Lam Diop Dagana dañu fii muharramin ama jalsasin wulida cheikhina Abdul Khadr laylatul jumaa nee na comme ñetti fan ci weeru tamxarit la sëñ Abdou Khadr gane jamono. dëpp guddi ajjuma. Ah, kon troisième jour boobu la sëñ Tuubaa ci si la ko boole teg ci yaa un bi ak fukkil bi muy dixième jour bi muy Ashura. Mhm. teg ci vingt cinquième jour ci weer bi ñuy tuddee diggi tabaski. teg ci taxawaay arafa ak bis bi ko ji. teg ci kasu rajab bis bi ñuy màggal nag tuddul kasu rajab dañ koy waajale. Mhm. guddi ji. bu ñu xëyee la lendemain mooy bisu Kazu Rajab ci la ko boole ak nisfu Chaban mooy quinzième jour ci weeru baraxlu sëñ bi bi mu tuddee bis yii dafa ne fa kullu man fii saw mi miha yadumu fassa yanaalu kulla ma yarumu képp ku saxal di woor bis yii lépp loo namm ci yàlla dana la ko defal ba bis bi nag particularité yi ci biir bari na

Ah, moom di ko ne xam na ni day guddal fan hmm. ah, jokk mbokk day guddal fan ah, bokk na ci ngëneel yi eh, eh, lu demee ni ziare borom xam-xam raay popp jirim saraxe xeet yooyu yëpp sëñ bi eh, tudd na ko ci téerim bi di Masaalikul Jinaan hmm. ak ngëneel yi li nga wax sànq ci yonent yi hmm. aussi événement yi xewoon dafa considéré ak yonent bokk na ci li sëñ Tuubaa limaale ci Masaalik yonent yàlla Adama alayhi salaam ci bis bi la ko yàlla jéggale ci bàkkaar Mm-hmm. ga mu defoon ca àjjana mm-hmm. ba moo sabab suñu wàcc kaw suuf mm-hmm. ah, yont yàlla ibrahima alayhi salaam ci lañ ko génnee ca sawara sa ah, yont yàlla nuuwi ca la gaanam nga teere woon yont yàlla isa alayhi salaam ci biis boobu ci la gën a jamono sëñ tubaa nee na te ci biis boobu aussi ci la rañaan dem ci boromam ah, wax nañ yont yàlla yunus ci bis boobu la ko jën bi wax ba wax ne laa ilaaha illa anta subhaanaka inni kuntu mina zalimin mm-hmm. euh, yont yàlla euh, yusufa ci lañ ko génne ca teen ba mm-hmm. euh, lu demee ni yont yàlla moussa alayhi salaam mm-hmm. ca la labale woon firawna ca wax nañ ni tamit ci bis boobu ci la yont yàlla mat alayhi salaatu wasalaam gàddaay jóge màkk ñëw Médine ah, mu bari nag ci bis bi aussi ci la ñuy solal Euh, kaaba ak yëre. Euh, kaaba ak yëre. Ah, chaque assurance euh, sànq damaa dégg. Ah, waaw waaw dama ah. dégg sànq muy wax ci àjjana googu. waaw waaye dinaa la ci wax tuuti ci wàllu woowu soog a teg micro bi. Mhm. lu am ci àdduna dafa am fële. Mhm. lu am ci àdduna rek am na fële. waaw mooy lan ndax dañu ne la miséricorde divine. Mhm. a fait qu'il y ait une relation d'homologie existant entre le monde visible et celui du royaume céleste en conséquence il y a aucune chose de premier. Euh, qui ne soit pas un symbole du second hmm. Moi, tax yàlla lu mu bind ci àdduna rek dafa bind réalité yi denc ko fële dëgg la xanaa xamu ni kaaba gi mi tudd nii Amna genen geneen kaaba ci kaw bu ko tiim bu baytul maamour ah baytul maamour soixante dix mille anges ñoo par bus. dañuy ñëw tay duñ ñëw suba ba yomal xiyaamati di taxaw ah bo xolé ay rayon ñoo dox seen digënté hmm. ah moom muy tuubaa gi inna lazina amanu wa salihat ah tuubaa lahum wa husnul mahab ah ñi gëm yalla te rafet

waaw mm-hmm. nga xam ne nee na amul benn ajjana goo xam ne mm-hmm. garab gi tiimu la di la keral mm-hmm. nga xam ne nee na fëy yi fëy yi garab gi lenn li wurus la li ci des xaalis la tubarkàlla tubarkàlla Cheikh ah, Moustapha bari na euh, yow yow yow dañ lay dañ lay invité waat yow yaa bamba mbuub laay boole ah. <laughs> faaw ñu faaw la euh, ñu ngi lay sant en tout cas ndax comme sëñ baa ngi waajal euh, livre yi mu bind ci sëñ Tuubaa war ko célébrer jëwriñ mbàkk yu fay ñoom ñëpp ay mm-hmm. parrain lañ ci mm-hmm. dinañ ñëw ci ñoom waaye mm-hmm. livre ñetti livre la ci sëñ Tuubaa ko def sëñ Moustapha boobu moom ñun ñëpp nañ ko waajal ndax it waa taay safar lay doon daal loolu nañ ko bàyyi bi yow bu boobaa euh, discours laa fa soxla boo xamante ne amul problème sa bi bu bu daanelee rek waaw euh, sëñ li muy yëkkati indi léegu ma mooy doon tàggatoo bi dama bëgg mu résumé li muy waxaat la ci séeréer yi bokk. Mhm. ak sëñ Aliou Thioune mu mujje ko. Mhm. la mu wax ci sëñ Modou Moustapha ca mhm. Casamance. soo soo joolaa yëpp buur topp ko. loolu moom ngay mujje dañuy bàyyi sëriñ bi rek euh, mu waaw waaw bu bu ma ngoog waaw mu daal ñu daal di. Euh, euh, waxuñu sax ci ak taalibeem ak tarbiyaam ak ni mu doon liggéeyal sëñ bi mooy xet ma boobu sëriñ Tuubaa di wax ci Tuubaa li Abdul Muriid mook sëñ Fàllu nii dong lañ meloon ca mag ci ceen jolof ceen mhm. jolof gënoon tànk mhm. tànk jër euh, ñuy tarbiya tarbiya yu métte métte métte ceen mhm. ceen jolof waaw foofu dañ koy fàtte rek dañ la fa xew dafa rëy dafa rëy maanaam ndax fa la Aysatu Mariama ñëwee seet sëñ Tuubaa ah. waaw ndax fa la sëñ Tuubaa bindee fosti bisa fil xasanaat ceen la ko bindee am na sabab sabab bi neexut a dégg mhm. ci saayir dëgg la waaye ci biir laaj ci biir xasida gi ci ngay xamee ne ab laaj dafa samp sëriñ bi tontu mhm. mu yaa uma maaliki dëgg la jaalil xaaliki ibnu kilaa bi xaaliki daf ma ne sa doom faatuwul mhm. jekkul jekkul bind na si doom faatu daam ko laaj ndax sama doom dafa faatu ànd sama doom dëgg la ah, aywa dëgg la dëgg la ah, ba loolu amee si na Isaa ñëw mhm. dajeeg gaanak sëñ borom dër bi mhm. gaanak sëñ borom dër bi mujj bind bi naan xaq jaan xaq li xaq fi dëgg la yooyu noonu te Isaa Mariama mhm. xam nga sëñ bi day junj wax naa ko sànq day junj jëliyaar Abdullahi lañ ko tuddee ah, nii Abdullahi lañ xam Mariama waxoon Mhm. dëgg la waaw kon. Euh, dafa doon lu lii yëpp dañ cee bind. ñett mhm. maa ci defut émission. Mhm. <laughs> duma ko ci non émission lay laaj. tey <laughs> waaye sëñ bi waaw ñëw euh, nga xam ne Cheikh Moustapha. tarbiya ga bind ñeent fukki kaamil. wala ñeent fukki kaamil ak benn bu ne ànd ak junniy dërëm. Cheikh Moussa loolu. kaamil bu nekk day ànd ak junniy dërëm junniy dërëm. xam nga loolu. lu yéeme te ci ci bay la ko doon defee. dem ñaxantu ji laxasaayu bay. indil sëriñ bi. waaw kon. loolu exemple la ci. mooy Touba li Abdul Murid Sadil bi xidmatin jeex xidma bi ci lañu war a ne xidma gu sell la. loo xam ne xidma sax day sell. dëgg la waaye nit. jékki-jékki ni def yëfam ni ngi sëñ Moussa doon waxee léegi dëgg la jàpp ne yaa ngi ci sëñ fekk na sëñ néew ci yow dëgg la de yàlla nañu ci yàlla yàlla nañu yàlla musal ci ci fii sëñ Moussa Ka naan di waxe naan am na ci ñoo xam ne naa leen lu tax muy wax loolu mhm. kon mhm. Euh, Cheikh Moustapha mhm. mataay gi fit wi dogu gi ngëm gi bëgg sëriñ bi euh, foo ko takk rek weesu weesu na ko foo ko takk rek wees na ko mhm. waaw moo tax euh, nga xam ne euh, doy na ci li ñeen doon juñu sànq rek mhm. xilaafa xalif yi fi mujj nga xam ne ñun ñëpp xam nañ leen mhm. ba gone yi jàpp ne sëñ Tuubaa yar ci ci ci niñ ci waxin fekk ni ci loxo Cheikh Moussa lañ jaar dégg naa sëñ Abdou Lahad mas naa wax ni sëñ Modou Moustapha lu dul jur moo ma ko def ñoom ñëpp lu dul jur te mo ne mo won abdullah hat mané ko Mbàkke mu ni ma sa wajuru wu tedd lépp loo koy defal tek ci sa bakkan di nga am lol to do ñak do ñak sa bakkan moo tax ay waxam yu bari ma na wax na sama bakkan bi la ci tek ah, sama bakkan bi la ci ndax wóor na ko dina ko am mo mm. te do ñak bakkanam euh, da ngay set jam yi colon colon yi mm-hmm. ngay ñëmé porte plainte tubaab mm-hmm. wa ci jamono jojo jamono jojo señ bi sëñ bi hmm? mm-hmm. lolou ak dogu ak passeefu aku fit woo xam ni dafa fekk jubal. Mm-hmm. dëgg la moom moo tax man ko am dëgg la waaye boo boo dëngee. doo ñemee man loolu dëgg la doo xalaat loolu dëgg la dëgg la. kon loolu. Mm-hmm. nga xam ne tey jii réalisation boobu mu def nga xam ne kenn xalaatu ko woon. Mm-hmm. Euh, te au passage damay wax ne wilaaye am nañ exposition bu ñuy def ci ci ci màggal gi ci raay bi. màggal gii di ñëw. màggal màggal Daaru Xudoos le 28. le 28 waaw mais man sëñ bi dama ne. ci la sëñ bi yéegee dañ ko war a tudde sëñ Modou comme ku ne nañ la ne rue yaa ngi patin patin vingt nan ko dindi ay Charles de Gaulle dindi ay ay ay ay ay ay ay ay rue rue Virmont mhm. ay tubaab lan ah waaye ki nga xam ne moo mës a taxaw ne damay jaayante ngir am raay. Mhm. ñu dem ba ut raay boo xam ne bu moderne la. Mhm. raay boo xamante ne àddina bépp a nga koy coow. Mhm. mais nag jekk nag ñu ne la terre moo Serigne Modou Moustapha Mbacké man de sama wàllu li dara caaro yi parce que fa laa juddoo caaro yi ba fa Fass Mbaw tudd naa ko Cheikh Moustapha Mbacké waaw dama ciy jaar. waaw sëñ bi kon euh, ñu ngi ñu ngi sant bu baax. ndeysaan bi ñaan suñu borom. Uh-huh. nangul ñu liggéey bi. amiin amiin amiin Mbacke ñu euh, Cheikh Mamadou Moustapha. amiin Mbacke booleem rakkam ak Cheikh si. amiin amiin amiin euh, Mbacke ñaanal moom ci liggéey bi. Uh-huh. Euh, te ñu ñii di jéem a dox ci tànk yooya. Uh-huh. suñu borom dimbale ñu. amiin yaa ko si yëpp laa daan waxee. àtte ñu ci yërmandeem. te bañ ñoo àtte ci maandoom. ndeysaan li sëñ El Hadj doon wax sànq. ci jikkoy Cheikh Moustapha. sëñ Cheikh dafa daan wax ne. koo mënta nëbbal ay ayibam mënoo koo yilif la ilaha waaw ah, di da nga xam ne ayibam mhm. mu wóor lii ay ayib la nga nëbbale ko ko mhm. nga nëbbal ko ko ndeysaan koo ngay mën a yëf mhm. sëñ Saliou am na nit jël na lu baree bari ci alal ci biir këram mu xam ne nita xamut lu muy def muy jéem a lijjanti ba xam ne muy waxee ak moom jekki-jekki boo ko ne ko ah, dafa mel ni daal dañ woon naa fi nangam ci bilim bëggoon daal ku ñu ko seetali <laughs> te xam na ne jëm jeeku jë waaw sëñ tubaab nax ji ca gànnaar te fa laay tëjee <laughs> nax ji def plan ñëw waaw dégg nga maam ah, ngir jël bakkanu sëñ bi ñëw uh-huh. na jëyi sëñ bi jébbalu sëñ bi xam ne léegi ko fi indi léegi ko fi indi uh-huh. moom bëgg a sëñ bi tàmbalee xalaat moom ci la ko ci musal bu ëllëgee bu yeggee foofa ndax xam ne li mu bëgg moom mënta ne sëñ bi nag daal di dandu ne nañ ko defal xayma ca ca barab ba ca ginnaaw kër ga mhm. ngir mën ngir nax ji mën ko fekk foofu wéet <laughs> dégg nga naaj yi tëdd ba guddi uh-huh. naaj yi lu mag ñi daan def rek dina ko def dëgg la guddi jot rek mu sumi ko ba ne ko day jure woon raam mu wuti sëñ bi lu tax mu summi ko mooy dafa xam ne malaaka yërmande yi boo summi ko ñoom ñu dandu mhm. mu raam wuti sëñ bi ak jaaseem mhm. ñëw ci xew sëñ fekk sëñ bi bind bu yëkkatee rek mel ni dafa am lu teeki bi ci kaw waaye bi muy dem fekk na sëñ Amar Fall sëñ Amar Fall ndaxte defe naa ne mhm. bokkoon ci kuréel Lat Joor yi doon ceddoo am réflexe boobu daan ne euh, mbokkum taalib bi fa nekkoon yor naa ñaari tur yëpp lu ñu gaaw gaaw gaaw bu ñu moytuwul luñ gaaw gaaw suñ moytul nax ji dana lor sëñ bi dem fekk muy yëkkati ba bennu ñu tatafa ko dóor ci suuf sëñ bi jóg ne leen jéggaleen ngir ngir boo liggéey suñu borom jéggaleen jël daal di koy jël daal di jël yére suturaal nax ji jël jël ndox jox ko muy naan mu daal di woo ñaar taalibe yi yéen nag seen baam boo liggéey nag gungeel leen ma ko ba mu gën ba ci dex jóg ga sama gan gu fi ñëw la woon mhm. loo xam ne gii gërëm naa ko yeewi naa ko jël la ko tubaab bi diggoon cinq cent mille yi jox naa ci waaw ah, kon loolu loolu ku ku ku yërëm jaam ñi dëgg la dong moo ko mën koy kenn xam lu doon waaw ku ku am yërmande te moom mi ngi set digganteem ak borom mi nga xam ne tubaab euh, alxuraan wax ne wala xam ne karam naa bani aadama mhm. waaw kon kon loolu li sëñ Moussa doon wax sànq ci ci leer gi lay dugg te jàngoo mhm. aliman bi laa temps lomi bañuy taqabalal kër yi bisam lay seeru waaw noonu la waaw loolu sëñ Tuubaa da ko def ci gars yi dëgg la dëgg la da ngay ñëw euh, liggéey ñetti fan mu seex la jox ak leer dëgg la jox la loo xam-xam boo xam bii xamoo ko woon dëgg la de waaye léegi sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ Mat Jaw Baxa dëgg la de totalement arrêté dëgg la de dëgg la de kon noonu la demee bis sëñ laaj sëñ bi sëñ euh, bi kon looy tàggatu Mahamadou Abdoul Khadim xanaa nag mm. euh, ñuy waajal vingt huit mhm. euh, août bi mhm. incha allah muy màggal daal xudóos gi mhm. mooy bi sëñ bi bindee xaatimatu mën a jaati bil xat sëñ Ahmadou Maxtaar nag bi mu def ci màggal gi maam moo xam bu murit yi ñuy déglu sëñ Muntaxa mu digalaat mu màggal Tuuba sëñ Ahmadou Maxtaar nii laa ko waxee maa ngi yow dëgg la ci néegam dëgg la waaw ci personnalité la am sëñ Ahmadou Maxtaar maa ngi sëñ Tuuba yàlla na fi yàgg tëdd amiin amiin kon euh, bis bi chamsa dafa digg woon nit ne ko fi fanan ci guddi googi mel na ni na la sale lay ci ñak bakkar ci chamsa warlok nit yi te seigne Touba moo ko digaloon Cheikh Mamadou fadil magal nako ñaar yat mhm. ne rafatal nako Cheikh deug la jox ko seigne Cheikh mu diko magal mu woote mu woote magal gu màggal gu màgge dëgg la deug la gu mag ak gu ndaw amu ci deug la lolou damay far di diggante gaay seigne <laughs> bi seigne borom mo ne bis bi ma gën a fonk mooy ma sama jàpp mu mm-hmm. daje mu dajeeg sama borom mm-hmm. Mm-hmm. sëñ Tuubaa bind ca wax ci wax ju rëy joojee wala mag maalam takkun taalam wasala lil haq min al haq ah, bi loolu dafa rëy ah? dëgg la wax naa ni sax ne leen ah, al suñ borom moo bind ci alxuraan ne alama lisaan déedéet alama bil xalam euh, ah te Rasulullah bindut sëñ bi kon ku muy waxal dëgg la wala bu tukaat fay na nun wal xalam te sëñ sëriñ Tuubaa ne karaamati yi xatu yat yi dëgg la kon ku muy waxal waaw moom lay waxal de leer na kon ñi ngi sant bu baax di gërëm jërëjëf jërëjëf jërëjëf sëñ Maamoor looy tàggoo waaw euh, tàggatoo bi de mooy euh, mhm. ni sëñ bi waxee rek mhm. noo ngi santaat bu baax sëñ Safa mhm. euh, émission bi ñuy wàññi ne daal Touba TV bi pare na ñun tàmbali nañ waajtaay màggal bi mhm. waaw dinañ def ay programme yu aw yoon mhm. def ay plateau yu jaar yoon dinañ def ay débat yu yoo xam ni day day day day ko mhm. maanaam du bokk parce que impact économique bi màggal maa màggal Tuuba impact bi mu am ci senegal bëgg naa ku mel ni sëñ Jibi Ndaw ñu woo euh, classe gi ñu kenn ku ne dem xoolaat ci parce que tax mooy wax ne dama bëgg ñu ubbi benn serveur boo xamante ne kenn ku ne day day woote ci serveur bi daal di ne mën la diw Mm-hmm. joxe numéro téléphone am tem sàngam bëgg naa cee participer mm-hmm. parce que rek waruñu rek maam Mamor Mbaye Ablaye Diop Bichri Moustapha Kane nekk ci tere yi rek di di di kii ñu foog ni loolu la yoonu murid am mm-hmm. dama bëgg ñun waa Touba TV ñu ubbi benn serveur serveur bi ku ci woote ne tem sàngam de lu ma yitteel la dix-huit jours la ñu am jour bu nekk ñu teg benn tem tem sàngam tem sàngam tem sàngam nan la ñuy def ba accident yi wàññeeku. Mhm. loolu war nañ cee mën a jàppale police. dëgg parce que màggal da ngay nekk di màggal di lekk sa ndawal màggal gi neex nga toogam yàgg ñu daal ne nga xool sa Facebook wala nangam. ñu ne mhm. nangam yi nit soge nañ ci yoon wi ci ñu doon ñëw. yooyu yooyu mhm. neexul te mën na mën na ñàkk. bu ñu organiser woo mën na ñàkk. yooyu yëpp kenn ku ci ne ne tem sàngam màcc naa ci mhm. loolu maa ngi ñaan ci barke Serigne Touba nu ubbil nu benn serveur boo xam ne mhm. dañ koy publicité ku bëgg a barkeelu ci thème yi mhm. nga def ko et tamit koo xamante ne parce que du télé bi rek moo fi nekk réseaux sociaux yaa ngi fi kenn ku ne am nga loo mën a liggéeyal Serigne Touba ci màggal bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi aleykum salaam wa jëf jërëjëf euh, Serigne Mamor ci wax ju am solo ji euh, jërëjëf Cheikh Moustapha Dieng yow moom faaw ñu invité waat la ndax Euh, altine waaw ma ngoog. Euh, euh, alxames wala àllarba. àllarba sëñ Mbàkke Buso àllarba la. bisu waaw bisu la waaw. ñu ngi lay sant bu baax sëñ Moustapha Dieng xam-xam am solo la. wax ji tegu ci aw yoon teey na. te it incha allahu rabbi des na la invité waat. ndax boroom xam-xam nga. te nit moom bu waxee rek feeñ. te wax ji li ci solo mooy wax joo xam ni bu génnee jariñ nit ñi ci saa si ñu mën a xam bu baax lañu ñu kii. ñuy ñu ngi la ciy sant bu baax a baax di ziyaare sëriñ bi di ko di ko di ko di ko ñaanal yàlla yàggal ko fi te wéral ko ndax moom mooy mooy mooy sunub sëriñ te lii lii lii lii mu ñuy may it ak oyofam. maa ngi leen di xamal ne ku baax ngi nii. ku bëgg mm-hmm. sëñ Touba Moustapha Kane ngi nii. Mm-hmm. Mm-hmm. man li ma ko jàppe mooy. daf noo ànd ba Côte d'Ivoire. nuy wër bare bi sëriñ Touba mais bi mu accès Grand Bassam mhm. ñu dem ba ci euh, gouvernance bi fi mu nekkoon mhm. bi ñu duggee ci tunnel bi ñu indi woon sëriñ bi mhm. nga xamante ne boo siggee doo laal fii mu tàng jër sëriñ bi keroog waxaatuta ñun ba ngoon dangoo ñuy génn rek barke Serigne ku bëgg Serigne Touba ngi nii. boo wéetee ak moom. Mm-hmm. guddi ngoon gu jot maag Moustapha dañ daan ñëw biir ba tëju ñëw suñu hôtel. Mm-hmm. hôtelam. Mm-hmm. ci Serigne Touba lañ ne ba deux heures du matin ñoo ko yëram dem. dëgg la Serigne Touba la gëm. dëgg la te duñ ko neexale kenn. dëgg la dëgg la. jërëjëf Mbacke yàlla na fi yàgg te jërëjëf sëñ Mame Mor euh, loolu mooy yoon ndax euh, sëñ Modou Moustapha ku muy sa maam. sëñ Seex jur la. wax dëgg yàlla nii rek nga war a mel. nga war a waaw mooy mooy xam li nga doon doon ko. loolu moom euh, Mbacke ñu ngi lay ci sant bu baax di la ñaanal ndax lii nga ñu defal nii wan nga nañu euh, samay samay taalibe ngeen euh, bokk ngeen ci sama njaboot waaye nag samay xarit ngeen ndax lépp lu ñu bëgg ci yow rek ni ñu ko bëggee lañ koy amee. te bëgg gi te yombul nag te bëgg gi weesuwul ñëw waxtaan ak taalibe ci sëriñ bi yee leen gën leen a xamal kan mooy sëriñ bi ak nu ñu war a def ba jariñu loolu wax dëgg yàlla ñu ngi la ci sant bu baax a baax euh, di sant nag sëñ ji ci njàng mu am solo bi moom nga xam ne Touba la jóge ñu wax ko ko tey jii la jóge Touba ñëw lii rek moo ko yëkkati su noppee day dem nii génn dem incha allahu rabbi wut oto dem loolu tamit euh, mooy bokk ci yëf yi ñu woola ñun ñëpp ñu bokk nekk fii loolu ñu ngi la ci sant bu baax a baax di sant ne ko sëñ bi waxee léegi alaaji Mbàkke yu fay mi nga xam ni mooy borom kër gi nga xam ni dafa wax ni man bu ma bu ma bu ma bu ma xëyoon di gis photo bu sëñ bi ci tale bi rek ñu di ko wane doy na ma fii ba àddunay tukki télévision bi na nekk loo xamante ni na ci sëriñ bi di feeñ rek ak liggéeyub sëriñ bi kon loolu mooy pas-pas loolu mooy volonté loolu mooy bëgg sëriñ bi loolu mooy ak taalibe te moom bëgg na sëñ tubaa xeetu bëgg sëñ tubaa goo xamante ni ñi ko xam te di ko fréquenté di ñëw ci moom xam nañu loolu te sëriñ bi ki mujj tudd muy sëñ mat jow paxa danuy woon mahabbatu abdul xaddimi wirdi wa hiya la daa sil harsi tax te wirdi boo demee ba ca roon ar sax la fay ngën gi wér di mooy bëgg sëñ Tuubaa kon bëgg sëñ Tuubaa mooy lépp te loolaa ne ci moom moom mooy mooy jëwriñ ci la ñu nàmpatal ci la ñu yar moom la ñuy xamal di ñu xamal ne lu dul sëriñ bi du dara lu ngeen bëgg wut leen ko ci biir sëriñ bi ndax mi ngi ci moom kon moom tamit ñu ngi koy ñaanal yàlla bàyyi ko fi wéral ko guddal a fanam sëñ Seex Balla Sàmb moom mi ngi toog ànd ak ñun yow def naa loolu xam nga ci dara waaw lépp tamit di moom ñu ngi koy sant sëñ Jibril Ndaw ñu koy sant bu baax sëñ Pape Cheikh Bey mi ne woon ci caméra bi jàkkaarloog ñun sëñ Moustapha mi nekk ci réalisation bi ak sëñ Babacar di sant sëñ Mamor ku sonn ci émission bi la waaw am na yu bari yu ci xew yoo xam ni man xam naa ko te moom moo ko def te jëmmi sëñ Tuubaa rek tax ma di ko def te moom ñi ko xam-xam nañ ni ngànnaayam mooy lu mel ni lii ma doon wax rek mooy bëgg sëñ Tuubaa te boo ko bu xase ne ci yow jàppal ni am nga lépp lépp lépp ci àddina waaw muy ku baax di sama wóllëre di ko ku neex a àndal ndax booy ànd ak moom dalay soññ ci bëgg sëñ bi te nit yaa ngi yaa ngi soññeeku ci bëgg sëñ bi rek na nga na nga gëm ne yaa ngi dox waaw kon moom tamit ñu ngi koy ñu ngi koy sant bu baax te di ko ñaanal bu ko defee yaa ñuy tëjal li nga xam ne mooy soxna Amina Saliou mi ngi ñuy topp soxna Khady Aj ñoom ñëpp ñu ngi ñuy topp ci li nga xam ne mooy émission bi ñu ngi leen sant di leen gërëm kon euh, sëñ Alaaji waaw bu la neexee ah wax ay kàddu door yëkkati li ngay tàggatu waaw mhm. mhm. ne bisu Cheikh Moussa mhm. Cheikh Moussa Karim daa produire ñaari jëmm yoo xam ne xam naa du mun na ñàkk moo wax ci ñoom ku nekk. dëgg la dëgg la. sëriñ bi damaa wax léegi ne ma séeréer bi waaw. soos bi tamit mënta ñàkk waaw mënta ñàkk te mu tudd njàkk. dëgg la waaw dëgg la kon kon dama koy dëgg na may. mbaa yaakaar ku yaakaaru lay waaw ma mayanees ko rek. noonu lay demee. voilà sëñ Cheikh Balla Sam mi nga dëgg la sama yaakaar tey ji ak boo liggéey daf maa am nuyoo. dëgg la muy sëñ sëñ Abdourahmane Mbacke am sëñ Mbacke dina. ci kon wax dëgg ne moom boo ko joxul loxo mi ngi koy dégg. mi ngi koy dégg mi ngi koy dégg mi ngi ñuy topp. mi ngi nii kon mu ngoog mi ngi ñuy topp noonu laa koy mm-hmm. defee mm-hmm. Ya wana doho kulu nasi bi ma am ya kar judul tas ya kar ko ya yaakaaru seexul khadim mhm. lañ fi ya, kar mo fi yaakaaru ya kar judul tas ya kar ko ku yaakaaru mami sëriñ Mbàkke Madina fi ya karu ma bis bisbanuna yowmal xiyaami ndaxam misaal mi feeñ na ci duniyaa kenn du muxtaaru moom képp mooy ki si gël lislaam ci ji jamono notal na lislaam ña doon bañ moo di xëxëru nun ñëpp santanu war ngir juddu giñ ci juddu maam yaag suñuy baay dañoo fekkoon ñu yaakaaru deret la tuurul dammul nit al kewul du kënoom ga mooy moo dàq fu jaaru maa yomba yombu dem am ndam lu sell di kaat làmbar na yombu dem am ndam lu sell di kaat def leen ko mooy élément ni njiit laa ngi ku dem ba jeewal te jéeloo lenn jaari wu ñuy bokkam du seen mappandoo nii leen komam yaa ngi ku dem ba taw me dammoo déewoo rafoo tadawoo yow sut nga ñëpp salaan ngeen ron gu gaa ngi mm-hmm. ma na nag ci sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ak Serigne Mbacke Madina alaaji Cheikh maa lay siyaare Mbacke tey laaj sa jàmm yow mi jàmmal Mbacke jàmmal nga waa penku te jàmmal saw waa jël si ne faaxe Mbacke yaay sunu raw gannaaw si nag la Gaynde Fatma dem nay de ubbil nopp bi dégluwaat ma def na fa jaloore def ko taayif def ko tindoodi mbakki am na jaajëf tuubaa ki njaareem jàll darma bay daa itam xam nañu gaynde mbër ma tuubaa ki njaareem jàll boori darma bay daa itam xam nañu gaynde mbër ma xam ngam xamoon France jur na ay njariñ umpule nag mën naa waral nit sàkk mbañ moo indi ëb du ñaan bulëg mose aloom na dem gërëm coy gaynde mi amul moroom sëñ Mbàkke Madina ak Seexul Xadim mi arfan bi arfin benn laati yow mi sëñ Mbàkke Madina ak Seexul Xadim mi arfan bi arfin benn laati yow mi dunduk Serigne Touba juróom-ñaar fukki at yu teg juróomi at la bul ati Serigne Mbàkke juróom-ñaar fukki at yu teg at xalaas waaru kat Serigne Touba sancoon ci Daaru Xuddoos sëñ Mbàkke yee salaat dëkkub Daaru Xuddoos borom madina foofi tudd aw turam kookoo ko baax rek la ñuy teg ci kaam ndax ku ñëw fi moom di wax mu daat lay déglu ku jooy fi moom lorit mu daat lay wallu ku tànk yay metti mu toog mënula la dox mu raay ko xool ko dootu am luy metti sax man xam naa ku jaan matt ba mun la tisli mu teg ko mbaxanaam mu daal di tisli xam naa ku ñëw ñu naa ko gor billahi sëñ mbàkke madina ni abdullahi sëñ mbàkke dina lorom wii kum kawal soo fa jógee faw nga am ay xéewal yàlla na seex taam bi taawu kër gi bi jeeyi mustawal nañ tekki te maa taxaw lu fii te ñaa nan njéggal ci barke mustawa ak ñu baax ñamu àndal yaa rabbana in waxindan jam fa ndeyu na barke seex mustawa garfutuyu ya rabbana in wakindan jam fandayu na barke Seex Mustafa garfutuyu amaduna tax fu i jik gëm na waray Seex Mustafa tax jama jik kañ na waray amaduna tax bu i jik na waray Seex Mustafa tax jama jik kañ na waray rasuluna te xoy rek maka togar Seex Mustafa xuway raatu mbake togar bugguna yokku cinci xifil manke gindoof fa ci xaadim mbaa lay nu nu gunaa jig jam mab xel roog famin coodi xañ foqa tuuba anamin ino koyang in ngaakuf mbaa u njanja ñaamuub giñ giñ waa u njanja bu dalangel bu gawlangee nok fa sabar eetu yungas jakas take ret fu kajar Cheikh Moustapha ilaa ji ngoola jiite inna na duniyaa nu bayta biyon tallinta Cheikh Moustapha illaa jingoo la jiita inna na duniyaa nu bayta biyon tallinta keebaalu naata musulu naata malaa'ikulu jiita ko bi naata inti silinti bindima udanko mutaña finko mujjinaani banko ji sa sinni jaata balooru barkata kambaanu baana kuytilloo barakata molbidi ŋoola dindiŋoobi diina tuubaabi inti diinoobi diina leddi baa o kulaŋoo kañanta intilin baaba to kawsi naata tuubi tuubi sarifo jiŋoola tuubi sarifo anta bintuŋoola hinyaaju saana minni loo baana tariya buri an tabibu dunna arsuno wa kursiyo dindi laalu si jiita wa fulo boyta arsuno wa kursiyo dindi laalu si jiita wa fulo boyta bintu bannaji saalu laata ridwaanu oljinaanu musulu laata beltul nooru bannaji saalu laata ridwaanu oljinaanu musulu laata bintu nooru bannaji saalu laata ridwaanu oljinaanu musulu laata yawmal qiyamati naa la jiita malaikulu jiita seex bamba jiita Vous faites a. orange bi 77 la. 670. 06 96. Vous faites ne tigo bi 76 la. 683. 35 64. 64 amoo pro mobile. amoo pour mobile non yow maa pro mobile mhm. barke seigne Touba amna seigne bi defal na ñaan rek. kon na sëñ bi ñaan wa jërëjëf. ربي مالكي خليلي ولبي نماني بالمصطفى مشفي الله تسليما